première chaîne de télévision privée du Sénégal. Euh, bonjour et bienvenue dans le Good Morning. C'est avec un réel, un immense, un agréable plaisir qu'on un immense plaisir. Du lundi au vendredi de 8h30 à 10h dans cette euh, émission qui s'appelle le Good Morning. Good Morning nag émission boo xam ne li li ko dalee altine ba aljuma 8h30 ba 10h dañ koy def waaye tey exclusivement Good Morning a été dépêché dans la ville sainte de Tivaouane pour vivre pour faire vivre aux téléspectateurs euh, l'enjeu ou même la quintessence des cent ans après la disparition de notre bien-aimé Seydi Hadj Malick Sy kon ki nga xam ne moom la ñuy wax Ndiol Fama moom bis ñi ki tey kon la génnoon àdduna moom Seydi Hadj Malick Sy boobaak léegi nag def na téeméeri at loolu moo waral li ko dalee ñaar fukki fan ak ñeent ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar en 1922 ci la génnoon àdduna kon en 2022 ça fait juste pile poil tey jii téeméeri at boobaak léegi nag ñu ngi ñuy jàngal la mu daan jàngale ñu ngi ñuy wax la mu daan wax ñu ngi ñuy wax fa mu daan jaar ñu ngi ñu ngi ñuy wax na mu daan gàmmoo na mu taxawoo woon tarixe Cheikh Ahmed Tidiane yi ba mu jaaree Njarnde Jaksaaw Gaaya euh, Ndar ba mu yegsee Tiwaawoon ba mu demee Makka ba mu demee fu nekk ci àdduna bi ngir mën a wéyal rafetaayu xam-xamam moom kilifa gu màgg googu di Seydi Hadji Malick waaye ñun ndawi réew mi nga xam ne fekkewuñ ba ñuy waxtaane lépp dañoo bëggoon a waxtaan ci euh, yenn bunt yi nga xam ne en général du ñu dégg ustaas yi di ko waxtaanee donc wax naa ko démb ci njalbeen di ko yëgle ne ustaas yi nanu ma baal ndax defuma émission diine li may def émission la rek boo xam ne dañu bëgg a xam ñun en tant que ay ndawi réew mi naka la Seydi Hadj Malick daan tabaxee doomu aadama naka la daa tabaxee dëkk naka la daa defaree nit euh, ba nit kooku mën a nekk nit ku am jom ku jariñ société bi nit ku mën a liggéey ses outils stratégiques par rapport au développement de la vie de tous les jours comment il a pu cohabiter avec le blanc ba ñu def ay seede yu fasantikoo yu rafet ci moom ñi nga xam ne ñoom la ñu dénkoon wàllu religion fii ci Sénégal parce que quand on interroge l'histoire on voit que c'est l'un des rares euh, marabouts du Sénégal à avoir euh, des éloges venant des colonisateurs loolu yëpp xëy na ay stratégie la yoo xam ne xamuñ ko woon loolu moo waral tey ñu war dalal ki nga xam ne moom moo di Serigne Assane Euh, bu maam Abdoul si maam Abdoul Aziz si Al Amin ak ki nga xam ne moom moo di Souleymane Ba di nit ku ñu ràññee waaye émission bi bu tàmbalee li ñuy def moom mooy fàttali bis ni ki tey lan moo fi mosoon a xew c'est la raison pour laquelle ñu leen di dugal ci fi ñu def exposition bi exposition nag mooy bu ñu ko waxee bërëb la boo xam ne faw nit ñi yegg si fi xool dund liggéey ak jaar-jaar ma ma jaaree ci profiter ci occasion bi wax leen ne leen. Euh, kon équipe bu 2S ñu ngi préparé plateau bi nga xam ne moom la ñu war a amal dans quelques instants ñu ngi ànd ak Papy euh, Dieng ana ana Asmalik ay ca bisimilah am guide boo xam ne ah Papy Mbeng maanaam Dieng Papy Dieng nekk Papy Dieng dafa dafa dafa dafa kii dafa am problème de difficulté daal bëgguma ko wax salaamaaleykum waa UCG na ngeen def bàyyi na ngi si jàmm bienvenue ça va soxna si ah si visite bi lañ dem kay. Ah? Ah, visite bi ana kii ni ana Mouhamed ana Mouhamed Aziz Mbaye tamu dof <laughs> Aziz Mbaye tamu dof mu ngi fi kaay ñu dem ndax euh, jumaay Tiwaawoon aussi mu ngi en réflexion jumaay Tiwaawoon bokk na ci jumaa yi nga gën a xam ne euh, bokk bu paree dina bokk ci jumaa yi gën a rafet ci Afrique de l'Ouest Mohamed waaw bisimilah kaay euh, dina bokk ci jumaa yi gën a rafet dina bokk ci jumaa yi gën a pare donc en attendant qu'on me le plateau pour ne pas perdre le temps pour ne pas perdre une minute de une miette dans cette émission nous allons rentrer en immersion directement dans la grande mosquée de Tivaouane ñu wan leen foofa ci biir jumaa ji fan la liggéey bi toll fan la toll est-ce que mu ngi am évolution lu ci mënti am on le saura dans quelques instants avec la complicité de Grégoire nga tegal ñu benn sikar le temps ñu yegg si ci biir parce que au fini ça va être un peu lassant de sañu dem Mohamed bismillah ah gor gi ci photo bi foto ma wuyu la lii leer naa sama trondoo sopp na Seyxanaa cofeel ja feeñ na ca dañ koy aajowoo ci liggéey yéen ñi nga xam ne mosu leen a am opportunité gis liggéeyu jumaay Tiwaawan ji fan la toll jàpp leen ne mu ngi am ay jéego yu am solo yu muy def dara dara yàquwut lépp a ngi def kéemtalaay kàttanam li ñu mën a xam ba xam ko mooy Grégoire yaa ngi yaa ngi yaa ngi def en communication di di fax sama nopp yi waaye waaye kii man lu tax ma yàlla nattoo ma kii léegi li ñu mën a wax daal mooy. liggéey jumaay Tiwaawoon ji am na dayo bu ñu ko doon séentoo te njortu rafet na ci ndax boo xëyee fajar gi gis nit ñi nekk fi waaye fii dafa mel ne mooy jumaa ji jëkk wala daara ji jëkk ji Seydi Aj defaraloon boppam fii ci kër gi ba tey kenn laalu ko loolu dafa authentique mu ngi ci biir ñu ngi ak suñu wolle rek suñu waay joo xam ne mooy Mouhamad gay euh, ci liggéey bu am solo bi ñu liggéey ci centenaire bi moom ak délégation bi mu àndal il a été vraiment au début et jusqu'à maintenant ci liggéey bi def ci ay taxawaay bu am solo gay bi rek a ma déranger si no tout le rest ça va alhamdulilah maa ngi lay ziar. te di la ndokkeel ci liggéey bu rafet. ok Pape ñoo ngi lay ziar di la masawu coono yow it sa yéene bu rafet depuis Dakar ngant am sa yaram xaw a sutante ñoo ngi lay masawu. ba tey nga ne da ngay mottali yéene bi ñu fekk suñu Tiwaawan ne da nga koy def direct te ñun lii rek la ñu am mooy suñu patrimoine. Tiwaawan ak Seydi Hadj Malick rek la ñu am. ku ñu ko fonkal ñu fonk la. kon alhamdulilah ñu ngi lay sant ci côté boobu. ok kon jumaa ji ñu gisee xol sedd na. wax yàlla. jëf ji fi ñu ko séntu ak fii mu yegg si suñu njort rafet na ci lool ne daanaka moom lii li ci des bareetul sax mm-hmm. boobaak ah. léegi liggéey bi taxawut benn yoon ah si taxawaayu kilifa gu tedd gi rek xalif général des Tidiane jox ko ndaw yu mat ndaw nag muy euh, commission bi nga xam ñooy soytu waa jumaa ji ñu leen di nuyu bu baax buñ nuyoo Makhtar Cissé euh, mu yóbbaale ñëpp géew donc ñu ngi ci liggéey bi 24 heures sur 24 nit ñi dañuy liggéey san noppalu bu équipe bi liggéeyee matin équipe bi liggéey soir noonu lañ ko jàppee daal te incha allahu taala bu dakkul délai bi incha allah ça sera fini sur un maire délai bu soobee yàlla waaw di sant sénégalais yëpp jullit yëpp taalibe tijaan yëpp muy réew mi ak diaspora ci bi xalifa bi wootee yu wuy si bu tedd biñ ko wuy si ngir liggéeyu maamam bu tedd bi nga xam ne amul lu dul moom macha allah taala jumaa bi dina bokk ci jumaa yi gëna a moderne mais yi gën a autonome ci Afrique de l'Ouest bokk dina bokk ci juróomi jumaa yi ñuy gën a ràññee ci adduna bi ni ñu ko defee ci maquette bi bu fekkee noonu la ko reproduire li ci des bareetul ndax soroor yi nga xam ne xàmmee nañ ko ci jumaa yi Tiwaawoon daanaka yu ci yëpp noppi na daanaka mm-hmm. yeneen yi ci des moom mooy euh, minaret yi nga xam ne moom mooy circulaire yi mm-hmm. te lii dafay wane ne euh, le travail est en train d'être fini mais de manière sama xol bi sedd na daal mais ba ci ba ci ba ci ba ci bërëb bi nga xam ne Seydi Hadji Malick si boppam moo fi daa jàngale moo fi daal jiite kenn laalu ko xanaa fii dañ ko bëgg a def euh, dañ ko bëgg a conserver mu intact waaw léegi euh, lii moom la Seydi Hadji Malick njëkk samp muy zawiya bu euh, bu Tiwaawan jumaa ju Tiwaawan fii lañ doon jullee lépp escalier wala ngay séen fa lañ daan taxaw di xutba mimbar bi donc yàlla dogal nag incha allah xam nga protocole bi ak liggéey bi dafa am ñu ko amee comme imprévu maa ngi woo Serigne Moustapha Sy mi nga xam ne moom moo géré chantier bi moo géré jumaa ji mooy doomu xalifa bi mais il est injoignable parce que xam ni gàmmu la ñu fanaan mais nag xam naa la ca gën a yaatu euh, duñ ci mën a dugg. waaye taarix bi rek mooy que ni li nga xam ne moo ngi ca kaw rek lañ mën a wax la ca biir ñu bàyyi ko kilifa yi incha allahu taala. Ah, ok ce qui c'est on peut permettre les Sénégalais de savoir fan la liggéey bi jugee fan la liggéey bi jaar fan la liggéey bi toll te di ci dalal seen xel bu baax di leen wax ne leen jeexagul mën nañ taxaw nii comme ça ñu am beneen angle de vision pour ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan euh, ci kaw terrasse bi lañu rek parce que sëñ Moustapha wax dëgg yàlla démb waa Tiwaawoon yëpp esat la ñu fanaan. ndax nekkoon ci liggéey bi ici tu peux regarder et tu peux constater que franchement wa dëgg yàlla lii bu nuppee dana dana dana dana yéeme lool waay lii bu nuppee Mouhamad dana yéeme lool. l'islam taar rek moo ko jig l'islam du début ba fi ñu toll taar rek la am. te li sëñ Mansour Sy Djamil waxoon rek amul lu gën a jekk mbaa lu gën a tedd liggéey bu ñuy defal Seydi Hadj Malick lu rafet lu ne par excellence la ci Seydi Hadj Malick war a am ndax taxawaayam ci diine taxawaayam ci lislaam expérience bi mu am fi mu jaar xarante euh, jamul gaañul dóorul te instauré na samp na li mu bëgg samp Sénégal ak li ko wër macha allah. xool boo xoolee fii papi Tiwaawoon foo xool jumaa la foo xool jumaa la foo xool zaawiya la te it ma ci gën neex da ko njëkkee njëkkeewul Tivaouane daf ko décentraliser ba senegal partout foo dem doo jël oto deux pas ngay dox yem ci jàkk yem ci juma. muy liggéeyam bu rëy boobu nga xam ne ñëpp. nga xadra bu la neexee nga wasifa. alhamdulilah looloo loolooy liggéey amal cantax ngërëm. wax dëgg cent ans après ce travail va être élucidé ci kanam tuuti dinañ wàcc suuf waxtaan ak ñaari borom xam-xam yoo xam ne c'est grâce a toi qu'on les a obtenus à la télévision ñu fàttali mboolem téléspectateurs yi ñuy seetaan ne leen images que vous êtes en train de voir li ngeen di gis dafa leen di wan fan la liggéeyu jumaay Tiwaawoon toll ndax ñu bëri bëggoon nañ ko xam centenaire u Seydi Hadji Malick nag moom mooy le 27 juin 2022 euh, ak le 27 juin 1922. 1922 mhm. le 27 juin bis ni ki tey la Seydi Hadji Malick si génn àdduna boobaak léegi def na téeméeri at. téeméeri at nag amoo ko yow mii seetaan man mii awma ko donc faw ñu seet ñoo xam ne mën nañoo luññutu gëstu dundu góor ga ba mën ñu cee wax loo xam ne wuute nag xilaasu zaxaab wuute nag téere yi wuute nag njàngale mi li ko dalee gaaya ndar njarnde jaksaaw tiwaawoon màkkatal mukram dundu góor gi fa mu jaar Médina ba Alexandrie relationnel bi moom mooy entrepreneuriat Comment exhortait-il les jeunes à aller vers l'essentiel et le travail? Quels étaient ces exemples de réussite dans une vie parfaite? Et toutes ces questions vont être élucidées dans quelques instants. balaa oustaz si di ma dóor ne Pape si da ngay def émission diine maa ngi koy wax dem ba léegi ne leen defuma émission diine dama bëgg xam Maodo rek ndax sunu maam la li ngeen ci am rek lañ ci bëgg am moom la ñuy wooyee ba jamono jii may wax ak yéen l'éternel inconnu de la nation. Mmh. Alors comme c'est un inconnu, il y a beaucoup d'autres choses à explorer pour ce grand homme que nous Sénégal ñun bu ñu échoué rek juum ndax mag ñi dañoo liggéey ba dee daal bàyyil nu fi mm-hmm. léegi bu ñu lu ñu tuut lu ñu am mm-hmm. ba seetaan loolu yàqu mm-hmm. ça va pas être intéressant donc dañuy wàcc ci suuf ndéem xool nañu fii ba xool évolution travaux bi dañuy wàcc suuf fekk gars yi ci plateau bi ñu tàmbale waxtaan bi nag xool fan la ñu war a jaar ak Maodo yéen ñi nga xam ne yéen ñu seetaan ci internet bi ak fépp fu ngeen mënti nekk jërë ngeen jëf gis nañu yitte ji ngeen jox émission bi Grégoire à tout à l'heure Mohamed macha allah tàbbix te doo te wéral ci mbay si danga raw yawmal qiyaamati it doo dégg riis laysaan Cheikhi wal Muxtaariya bi dimbar si ay fajar dina ay daanam te jeex soppay sëñ Babacar Si um nga al asri kenn du ko miin ku nekk seem bi na sampam dellu góor mi ki xar ndeysaan cheikhi wal muxtaariya fi ndimbal waaw waaw si al fajaat dina ay ci ngis tëloo damu woo ne ko wut yow ku la naw xanaa taxaw temm tey digle ka dee yàlla war ndeysaan Cheikh wal Muxtaar yaa bi dimbal waaw waaw si ay fajal dina ay daanam te sëñ Babacar jëwoo nga neel tasuloo yaa kenn ku la gëm tewoo nga neel tasuloo yaakaari jéem kenn ku la gëm tewoo nga neel tasuloo yaakaari kenn ku la gëm si ku la roy roy na asxaaba rasul ci lu wér xalifatan ndeysaan cheikh wal muxtaariya waaw waaw fi ay fajar di ne ay daanam rem rem te ni mi yéen ñëpp déglu ma tuut ne leen xeeram rem te ni mi yéen ñëpp déglu ma tuut ne leen xeeram rem te ni mi yéen ñëpp déglu ma tuuti bi uallimukum maa huwa ahsanu xalifatan ndeysaan Cheikh Al Muxtaar waaw waaw soppey sëñ Babacar tuus leen ca bàkku ko am daay moo ñoo ko yeyoo tuus leen ca baat bu ko pil am ndaaki ndax moo ko yeyoo dam saji te tasbit xalifaay mi ko jat min al basiti madidin kamilin ramalin wa waafirin rajasin bëgguli tama ma mbay sabar bu muy kaman ja te bu muy meex sa bu muy trompette bu muy guitare te bu muy fan fanile di li war bu leen ko xiinal te bu leen mbalax man afada koy tere te bu leen ko xiinal te bu leen mbalax xalifa da koy tere te ba leen junjungu yi te ba leen mangoor tan way ko ci ar musafilan bi failan musafilan bi failan seen bësiit a ngi rik yow mi de tibaa ki sëmër atiix a ngi innahu moom rek mooy ki ko jar day daane baba kër si day daane kon de kii rek moo mata far far leen ci mbay ku ci far doorus te kenn du la ree akrim na fi ci wawan ku fa dul dem ñu dem bala ku ca dul dem ñu sàggan ci saalu mbay ku fa dul dem ñu dem ba ay bunu sàggan ci waawan ku fa dul dem ñu dem ba ay bunu sàggan ci waawan ku fa dul dem ñu dem ba la way na bay ci meloom albami sa sàmbana bone kaare boom sàkkir yàlla bay na samaatuma bay na ardi ku bëgg sëriñ Babacar Si loxo ca kaw jaan de dellu sant mbay ci jikko meey kenn desul du rakk du doom wër na waa Tiwaawan alim yaa ngi ñëpp la jiin gën gi diina seeni gàllañ benn desul bu ñuy dëkk naan mooy mbërum Tiwaawan fas gi mbay séer ci loxoom xayru xalqilaaye ko moom jox ko mbay mu séere ci moom ak borom Tiwaawan moo tax ñu woy Sëriñ Babacar Sy bari nañu lool mbay naari nee nañu maalum fuuta nee nañu gongo wolof ni mbay daan naay séede loolu joolaa yaa nga naan kililin kalalan ku demba seccan kaala ku demba secca kala wiican kaana ku waalo ginga fuuri daan na séede leen loolu pël yaa nga naan ala sukko ala mbay si ngacca toon ngari gaay yo neɗɗo fof immo kotel galle sérigne babacar si sa iide ande nde laaɗo ar jaken galle khalifa qur'an hadis kayni keewi galle sérigne babacar si sérigne si waynan sérigne babacar si wakal misbaru فوق القرات يسكب مياغا كسكب من سحاب ويدرب وتلتتم الأموال من لج فكرتي كما يزيد البحر المحيط ويضرب لمت أبي بكر خليفة مالك درته النواحي شرفها ثم مغرب يحاكي أبي بكر خليفة أحمد بحلم وعلم لا إلى الكفر يقرب يجدد دين الله بعد قرابك لدى الغرب lawlaagul masaajidu wa yuqrabu yuallifu bayna almuslimina quluubahum wa ya'muru bilma'ruufi wa huwa yal'abu jazaahu ilaahu nnaasi xayra jazaa'ihi bilal kayla wal miizaanu thumma maghribu rakam ja way na ko mën a amin taxti junxi layli barqun diyaa'uhu bi shar'in wa gharbin amma am tal'atul badri am irtafa'a al-anwaaj isalma al-baraaqi' am mimman yatalaa'at lanaa lum'ata ad-dakhri haasha wa kallaa kullun daalika lam yakun ta'ammal dara ñu ñëw avec la télévision et quelqu'un qui s'y connaît que nous wan leen dundub Maodo Malick Sy Seydi Hadj Malick cent ans après du 24 au 27 kon le cérémonie bi di am thème Seydi Hadj Malick après la lumière sur une vie et son moom mooy la seule photo d'ailleurs de Seydi Hadj Malick Sy authentique et authentifiée donc ce qui veut dire que lii mën nañ cee jànge l'arbre généalogique de sa famille euh, Tafsir Demba Bouna Sy Ousmane Sy Mame Fawade Wele euh, Abdou Boli ak yi nga xam ne moom moo di kii moom mooy El Hadj Malick Sy mm-hmm. njaboot gàngo c'est son frère ah? Wouly c'est son frère. Fanta Niang c'est sa grande sœur. ñii ñoo ko mag Mame Fawad Duwele euh, bi mu njëkkee am borom kër ñii la ci am yàlla weddi nag mu am maam Ousmane mu am maam Seydi Hadj. Alpha yoro du moo ko jox wér di Tidiane mooy ndijaayam. moom la maam Alpha maam Cheikh Omar joxoon yóbbante bi. boobu Seydi Hadj Malick ganeegul àdduna. bi mu bi mu amee bi mu dëgëree maam Alpha Mayoro jox ko ijaaza yi jox ko wirdi wi. ci benn jotaay. macha allah. Mhm. boobu. Mhm. Seydi Hadji Malick ganeegul àdduna. ganeegul àdduna Cheikh Omar Foutiyou mhm. fekk ko ca kër ga. non maam Alpha fa dénkaane. laajte sëru soxna maam fa da doon ziyaare ji ca Oore Fondé maam Cheikh Omar maam Fawad Wele jël teraanga jox ko muy benn sër. jox ko ne ko nanga ma ko joxal sëriñ bi hàddiya bi ñu ko ko joxee nag ca kaw loolu la yëkkati sër bi ne fuuta doomu borom sër bii fii ma toog ba ca doj wala ca ngor naasiril xaq bi xaq dina fa tasaaro te doomu borom sër bii moo koy def te boobu Seydi Hadj Malick ganegul àdduna. boobu c'était prémédité donc selon l'histoire du Sénégal Seydi Hadj Malick Sy mu ngi gane si àdduna vers les années 1855 1855 1856 historiens yu bëri am nañ ci waroo ñii nañ 1856 ñii nañ 1855 mais ce qui est sûr c'est que si alentour yooyu la gane see àdduna euh, pèlerinage à la Mecque bi nag. am na ci lu ci am solo mooy yàggu fa. Mm-hmm. yàgg na fa def na fa ay at. Mm-hmm. parce que Seydi Hadj Malick demoon na ba euh, euh, culture bi mu gis Sénégal ak diine bi mu bëgg instauré ak euh, dëgër bopp bi fi nekkoon ak yenn melokaan yi demoon na ba ne ah man ma mujj faf toog makka rek mottali sama diine waaye mag mu baax feeñu ko am lu mu waxtaan ak moom mu ne kii kat ki wax ak man. gëm naa ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko yebal si la jëlaat ay bagaasam jaar fi mu jaar alexandri fu ne mu jaar fa Seydi Hadj Malick est multidimensionnel et international niveau am kenn mënu ko xam dañuy nab nabi nii rek parce que waa cellule euh, macha allah dañu sonn liggéey bi lu ne lañ ci daj léegi laa woo Seydina Omar mu ne. Euh, am na ñu bëri ñu dem dakaar moo tax ma ciy góorgóorlu ni ngir yàlla rek ñu mën a mottali yéene bi incha allah taala waaw mais du suñu xarañte du lu ñu xam euh, profondement wax dëgg yàlla mais nag euh, njaboot lañu te am na lu bëri loo xam ne nag xam nañ ko ci xadara bi waaye ku nekk ak cëram dañuy bañ a dugg ci cëru nit rek moo tax ñu yem fi ñu war a mun a yem mais lii comme tey c'est quelque chose boo xamante ne c'est important pour sénégalais yëpp euh, dund ko ñu jéem ci li ñu mën rek ak fi ñu mën a yem allah mu mu mu mel ne euh, dafay am yeneen affaires yoo xam ne da nga koy gis. tu te dis musuma gis lii musuma ko xam. déjà liste des séminaristes de Ndiarndé non exhaustive. Wak Saloum. Momar. Bayko Njambur. Aliou Ba. Euh, Gumba. Ba Bayko euh, kii ni Ndar. Mm-hmm. c'est une liste des gens qui l'ont retrouvé à université populaire bi ngay dégg. Uh-huh. c'est quelque chose qui existe ndax nitu yàlla bu mat nitu yàlla li ko war mooy jàngale ak yeete te Seydi Hadj Malick matal na ko tey réew mii ku fi xam dara lu baax xam nooy si ndax diine doo ko tatone da nga koy jàng xam ko def na ci effort boo xam ne nag ñi mu formé ci réew mi te daleen leen formé ba pare tas leen ñi mu dugal leen différent dëkk ci Sénégal ñi mu tas leen en Afrique ñi mu tas leen en Europe. muy liggéey bu metti donc bu ñu amoon tuuti temps daañu lim tur yi. waaw. Euh, euh, Wakk Ba. waaw Wakk Ba Aliou Ba Momar Baas Abdoulaye Cissé Ahmad Dafe Alioune Dia Ahmad Dia Diaw Oumar Diaw Samba Diaw Jibril Diène Mansour Diène euh, Surakatu Diena Momar Awa Jong Alioune Diop Assane Diop Makhtar Diop Moustapha Diop Moustapha Diop deux fois Ndiaga Diop. Pedre Diop alaaji Pedre Diop nekkoon na imam Zawiya Seydi Hadj Malick mhm. waaw euh, Youssoufa Diop Ahmad Gaye euh, Dios Amadou Lamine Sall Alioune Fall Cheybatu Fall mi ngeen di dégg boroom xam-xam bu mag ba Daouda Fall Mawlud Fall Ousseynou Faye Momar Faye Alioune Gadiaga Makki Gaye Moubarak Gaye euh, Momar Binta Gaye Ismaïla Diène Diène Abdoulahi Gueye Amadou Gueye Alioune Gueye Barama Gueye ma Mahabsa Gueye Momar Gueye Ousmane Gueye Cheikh Ka Abdoulaye Kanji Thierno Kanji Abdoul Hamid Kane maam Abdoul Hamid Kane mooy maam ñoom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum al Amin euh, macha allah Aboubacrine Kebe Momar Anta Kebe Aboubacar Kebe Abdou Salam Lo. ku ne dégg na turam ñii mooy mag ñi mu for na ñu bañ a guddal ñi ci nekk bëri na eh. rafetoon na ñu tudd ñëpp ku ci nekk sa sa sët ku ci nekk sa sët dina kontaan wane ko zoom ko comme ça ñëpp gis parce que su fu naree wane lii xoolal yow commencé guñ wallaay et on a assez vraiment beaucoup perdu de temps dimension Seydi Hadj te ñii moo leen formé ca njarnde et puis fii ñu ngi ñuy wan benn mbir muy wane ne Seydi Hadj Malick Sy était un modèle de civisme mm-hmm. chronologie de quelques faits marquants de son euh, œuvre depuis l'installation à Tivaouane d'après les sources d'archives. En 1901, le 12 octobre 1901, correspondant au numéro 10-23 de l'administration du cercle au commissaire de police de Tivaouane en instruant une enquête de moralité sur Seydi Hadji Malick Sy, référence AS 11D1 12-21. Le 16 octobre 1901, correspondance numéro 10-28 de l'administration du cercle de Tivaouane au directeur de l'affaire des indigènes de Saint-Louis à Saint-Louis relative à l'envoi d'un certificat de bonne vie et mœurs destiné à Seydi Hadj Malick Sy c'est très bien Maodo jërëjëf ok Ah, waaw maam jërëjëf lii moom defe naa photo bu photo bu bu extraordinaire fii Tiwaawan la gaaru Tiwaawan maam Dabax la ci àndal noonu maam Abdoul Aziz Dabax am na fu ma gisee photo photo photo photo njabootu maam Maodo gi mais ñu nekk ay xale kii ma ma ma jama jaw ma jama Diop El Hadji il il naquit en 1862 à Rufisque établi à Tivaouane depuis 1887 en qualité de commerçant ses affaires ont vite propre propéré dans plusieurs localités le long du chemin de fer donc moom dafa nekkoon ay notables yoo xam ne ñoo doon ay taalibe Seydi Hadj Malick di ay commercant yu mag voilà. Baye Jokkel Thiaw El Hadji Babacar euh, Ndiaye. Euh, Atoumane euh, uh-huh. Serigne Seybatou Fall borom xam-xam boobu ngay dégg. macha allah uh-huh. Abdoul uh-huh. Aziz Mbaye. Jokunda Ndiaye ngi nele ca kaw. waaw Maodo. Samba Moussa Lo. Serigne Alioune Guèye Serigne Atoumane Ndiaye. sëriñ Aliou Guèye. góor gi Moussa Niang mhm. imam mhm. donc ñii ñëpp ay. Mhm. kii mooy maamu euh, mooy bàyyi El Hadj Mansour Mbaye Amadou Mbaye Maodo maam Seydi Hadj Malick si loxo si mbaggam la daan teg loxoom moo ko daan jottali moo ko daan waaw El Hadj Ngouda maam Moussa Allé mooy maamu ñoom Abdou Aziz Mbaye waaw waaw El Hadj Alpha Mbaye. Binta Diol. Alaaji Masaw Binta Diop. Mhm, mhm. kay ñii. Mhm. ñoo daan nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo daan. Euh, ànd ak. Euh, Seydi Hadj Malick les les notables. fii mooy jumaa ji nga xam ne moom lañu encadré ci biir jumaa ji ñuy tabax. une photo authentique où à l'époque on priait dedans. à la mosquée de Tivaouane. fii mooy fii nga xam ne moom mooy minbar bi. fii la ñu encerclé ba léegi. ça c'est l'œuvre de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh Dabakh les travaux qui ont démarré en 1979. c'est ça macha allah c'est ça. l'évolution ça. ça se passe da ngay seetaan nga ne. bon on va ouais, si tout mhm. euh, ay tool yu Seydi Hadj doon doon doon doon bay la waaw bu ko defee fii ci suuf mooy ndomba àllarba. waaw fii ngambu Cile ngambu Cile taarix bi ci am bëri na. situé waaw njaar ci suuf la situé à quelques quatorze kilomètres entre Gaye et Dagana. L'exploitation de cet immense domaine famille mise à sa disposition par sa mère Sokhna Fatoumata Wele permis à Malik El Hadj Malick Sy d'avoir les ressources financières licites euh, prescrites par la charia et la sunna pour accomplir le pèlerinage. maanaam Seydi Hadj Malick ba muy dem Makkatal Mukarram lebut xaalis. Mhm. waxut aal ma. waxul addiya ñaqam la doon dund dani li ko dalee 14 kilomètres ci diggante gaaya ak dagana foofa am na ay tool yu magoon. tool familial tool kër tool njaboot foofale way juróomu jigéen ma ñuy wax maam soxna faa Faatumata Wele bàyyi woon na Seydi Hadji si moom cag ndawam mu góor góor lu bay fa lu mu mën a dunde waaye bay fa lu mu amee lu mu jëlee lu lisit maanaam lu lew mun nan lañ koy tuddee euh, kas kasbul euh, shifa xaw ma nan la <laughs> <laughs> mën a mën a sàkku fa lu lew ci charia ak sunna mbur mën a dem Makka en 1888. Mm-hmm. su mën a topp fii du ñu ko tëb. waaw ndomb ndomba Sanjiri. waaw la bindee Taysiir bi ngeen di dégg. voilà léegi su ma la toppee yow. Ah, man fii la ñuy fanaan te bi am naa yeneen affaire yu mu war a dem def dañuy ki nga ni kii kan la. kii Seex sëy abu Aboubacar mu tedd mi. Serigne Babacar kii Serigne Babacar la. kii Serigne Babacar waaw joxoñ gi ma ko joxoñ ndax wóor na. ah waaw la moo nekk nii di. Euh, euh, euh, tout tànk bi toog di jàng alxuraan ngir lii day wane ni diine kenn du ko làmbaatu. jàng la ak jàngale xam ak xàmmee du lu la neex wala ki la neex li ko yàlla rëddee yonent bi jottale lañu ko rek noonu nga koy toppee incha allahu taala. donc mu ngi noonu Serigne Babacar si nga xam ne dafa dundam yëpp da ko jeexal ci jàngax jàngal ak xam-xam ba tubaarkàlla li mu xam ci àdduna ah macha allah yàlla na yàlla defal ñu sutura ku xool nit koo gis xoola ca njabootam rek daa gis mooy kan daa xam mooy kan waaw. xanaa lii nag mooy ci sama làmmiñu wu rëy maanaam balaa bone bi di kaare ci bopp bi. Mhm. woom yi yàgg nañoo ruur ci suuf si. Mhm. Mhm. yàlla ñu ko yàlla fayal si Malick <laughs> maa ngi jéggalu bu baax. cey Mam Maodo euh, le bâtisseur de la Zawiya ça on va voilà ça on va en parler waaw nga xam ne li gënoon jafe mooy samp diine tubaab yi ne fi que Seydi Hadj Malick stratégie bi mu teg ak diplomatie bi mu teg loolu la ñu war a waxtaanee. non non c'est ça qui est intéressant ah. dans l'affaire. Ah. dinañ ci dellu si waat ci kanam. Zawiya Tivaouane ça c'est sa relation avec le colon mhm. François François Clausel Euh, gouverneur du Sénégal de 1916 en 1918 su fekkee da ngay faral di seetaan Good Morning le matin très tôt le matin dañuy fàttali ay effets historiques mhm. euh, ci faits historiques yooyu dañuy wax fan la jóge fan la jaar Martin euh, William Marlowe mhm. gouverneur général wala Martin mhm. gouverneur de l'Afrique occidentale française am nañu ay seede yu extraordinaire ci xam-xam ci sagesse ci dundin wu rafet yu ñu def ci Seydi Hadj Malick la peste uh-huh. test bi mu amee euh, tubaab yi ñu ne pour nit ñi nañu vacciné wu waa Guet Ndar bañ ndax wóoluwuñu tubaab yi bi loolu amee ñu joxe ay ndigal ne dañuy fexe ñu tiire ci kaw ci kaw population bi bi seri Hadj Malick déggee loolu mu dem ne lan moo xew ñu explique mu ne peste bi la mu dem li mu njëkk def. exemple bi mu njëkk def dem joxe loxoom ñu pikiir ko bi ñu ko pikiiree ba pare mu dem ne waa Guet Ndar astafurlah dafa dem ba ci tubaab bi ne ko ndigal yi nga joxe dindi ko mu ne ko ñii dañu dëgër bopp mu ne ko bu ñu dëgëree bopp yow nga nooy bopp ñii dañu yaradiku mu ne ko bu ñu yaradikoo yow nga yaru ñii dañu dof mu ne ko yow nga wér yow yow seen chef yar la ba foog ne nit nga yebal la ci dëkk bu sous-développé pour nga jàpp seen loxo yëkkati leen xalaatoo dara jël fetal di leen tiire mu dindi ndigal yi mu defoon yëpp maam alaaj maa dem joxe loxom ñi pikiir ko mu dem na Guet Ndar lii du dara seen wér yaram rek a tax waa Guet Ndar yëpp dem eh, kii vacciné wu. tubaab bi moom man maa duggul seen affaire <laughs> dama leen fii fii leen buggul daal différents convocations aux citations à l'endroit de Seydi Hadji Malick si par les autorités coloniales de Saint-Louis euh, d'après El Hadji Amadou Sey chercheur en histoire donc loolu xam naa incha allah mu ngi noonu. yooyu dinañ ci dellu si siwaat lii mooy ñi nga xam ne moom mooy. waaw nawleem yi euh, rek. parce que diine nawlente la. Mm-hmm. fii y a rien plus meilleur que l'islam te ñoo ko bokk na euh, Talibuya ah kay Thierno Seydou Nour Thierno Tall mi nañ fa taxaw tuut Thierno Seydou Nour Tall bi mu ñëw Seydi Hadj Malick li mu am ci xeetu xam-xam munoon na tukkil àdduna waaye bi mu ñëwee Seydi Hadj Malick dana ko bàyyi lépp teg ko ci suuf Seydi Hadj maale jox ko leneen Thierno Seydou Nour Tall la munoon na tukkil àdduna martabaam ak xam-xamam amul ci àdduna waaye dafa ñëw tarbiya Seydi Hadj Malick mu rocc loolu yëpp nga xam ne ay kiraama la def def baatin bu wér ci moom. kon loolu rek exemple la waaw ñi ci des ñëpp ay nawleem ah kay maam li maamu lay jong El Hadji euh, Ahmidou Kane mhm. ca kii moom suñu waa dëkk mhm. maam waaw waaw waa Kaolack nun waa Kaolack noo nekk nii El Hadji Abdou euh, Hamid Kane euh, El Hadji Amadou Hamid Kane Seydi Amar Seck Seydina Issa Laye Laye Makhtar mhm. Aji Bodaye Laye fële ca Yoff Seydina El Hadji Abdoulaye Niass wallahi foofu dinañ fa taxaw El Hadji Abdoulaye Niass El Hadji Abdoulaye yàgg na Tiwaawan mu jugee Fès. lu jiitu loolu. ndax tubaab yi dafa am melokaan yu ñu amoon Seydi Hadj amul ku mu defalul intervention ci diine nag ak ci ngor. fexe ba ñim ko sékkaloon mu couvrir leen ba kenn jamu leen. ci ku le cas de Seyda euh, Maam Alaaji Abdala. Mhm. Abdala Abdalaay Niass. Mhm. Seydi Hadj Malick Sénégal la defal intervention. dëgg la parce que kii dafa pare woon a dem Gambie dëkk. wallaay Azim. ah dimension bi mu am. bàyyil kii sagu Sénégal la bu mu génn dëkk bi. Mhm. jox leen ko bërëb bu mu dëkk. donc du sëy maam jab de lay la defal intervention direct mais Sénégal la ko defar parce que bu boobaa kon Baye Niass fële lay def. la en manière générale li mu def ci dafa fekk ne baatin ak mbaax jarul fësal euh, Serigne Babacar Sy Mansour day wax ni euh, euh, Lukkumaan ba muy waxtaan ak doom ja dana ko ñaara ngi nii nanga ko fàtte waaye ñaara ngi nii bu ko mës a fàtte ñaar yi ngay fàtte lan la li la nit ki def ci lu bon fàtte ko te yàlla tax def nga yàlla lu ko yées te moo ngi la fi bàyyi. ax li nga defal nit ci lu baax bu ko ndamoo di ko wax dootoo ci am payu yàlla su ma fii la ñuy fanaan tu es passionnant tu es intéressant tu es euh, réponse Seydi El Hadji Malick euh, réellement souffrant ne pouvant pas être représenté en voyage à la Mecque c'est montré très sensible ça c'est des lettres pour nous montrer euh, en Côte d'Ivoire El Hadji Bouye Gueye El waaw si décentralisé bi nga xamante tey mun naa cee wax ndax mayor yor lépp luy décentralisation ci mhm. centenaire bi El Hadji Malick philosophie bi mu am mag ñi da leen tas dëkk par dëkk fii ci Sénégal mais génn Sénégal dem si sous-région bi alaaji Bouye Gueye mii moom la yóbboon Côte d'Ivoire lépp a ngi fa kër ngi fa daara jaa ngi fa jumaa jaa ngi fa lépp a ngi fa boo demee ba Gabon am na ñu fa teg et cetera mënuñu koo lim. man dem naa si dem naa Guinée Bissau. Mhm. daayira Seydi Hadji Malick bi nekk foofu mhm. macha allah. Mhm. toppatoo nañ ma toppatoo cohabitation bi Seydi Hadji Malick daa ñëw fekk Tivaouane am ñu fi dëkk di ay ceddo. di ay naankatu sàngara di ay tëggkat di ay fecckat mu fexe ba tëggkat ya fecckat yi mu jox leen alxuraan jox leen sunna ba tey ñooy way seen sët yeey nekk fii di way tey ña nga xam ñoo doon naan sàngara mu defar leen ba ñu doon ay imam tey loolu mooy lii ñu def ci exposition bi rafet na waaye kër ah, Serigne Touba Tivaouane fii ci Tivaouane wallaahi diine amul amul amul division amul division ñun ñëpp ñoo bokk lislaam Seydina Mohamed genn la yàlla moo xam nga lan la ay dof c'est réew mi bëri ay dof ah te bu la jaaxalee ah Serigne Amadou Dia Aminata. né vers 1902 dans le village de Tamba Dia près de Tivaouane le jeune Amadou Dia rejoint ainsi sa mère dans la demeure de Cheikh Ahmadou Bamba à Amadou Dia Aminata s'installe à Tivaouane où il s'adonna à, euh, à au commerce. commerce à partir de de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké représentant il a entretenu des relations extrêmes cordialité avec la famille de Seydi Hadji Malick Sy fidèle de Serigne Babacar Sy ils se vouèrent à une à un respect mutuel il est également avec euh, il est en il en est également avec Serigne Mansour Sy donc ça c'est aussi une relation la relation avec Serigne Abdoul Aziz Sy ont été empreinte d'une affection euh, démesurée euh, En effet, sur la proposition de Serigne Ndiogou Niang, Serigne Amadou Dia Aminata était nommé imam à la zawiya Seydil Hadji Malick Sy parmi ceux qui dirigeaient euh, le, la prière de matin ou fajar. Ah, ah, waaye nañ dem waay moo tax bépp mbaam boo dégg muy def yëfi dof nekk ci internet bi di wax waxi ñaaw di ko askanale Tiwaawan mbaa Touba mbaa Medina mbaa Lewna. yow yaa ciy dee parce que yow yaa ciy ñaaw ñii ba ñu rafet yéen rafetagu leen. Mor si mii mi. waaw ah Ahmadou ko jur. Ahmadou ah maam Ousmane mi jur maam Seydi Hadj Malick ñoo bokk ndeyax baay kii moo jullee maam Seydi Hadj Malick. ah maam maam maam Mor moo jullee maam Seydi Hadj Malick. bu mbir kilaan bu kon jeex na xam nga lépp yow da kii nii rek. <laughs> kii du Serigne Cheikh Ahmed Tidiane le savant. ah beaucoup de gens parlent des élections de Sénégal avant l'arrivée de l'indépendance mais man c'est pas moi qui va contredire les chiffres mais bon il y a une histoire officielle et une histoire officieuse et dans l'histoire officielle des faits avérés que Serigne Cheikh waaw ah, waaw nan noppi rek ah, parce réew mi day indi ay problème <laughs> ah, waaw mais loo ci mën a wax donc la famille est là Serigne Babacar Sy sëriñ Babacar alxaaji Mansour si Malick baayu xalifa bi tey bu tedd bi yàlla na yàlla yokk wéram sëriñ Mansour si borom daara ji nga xam ne moom la ko tuddee sëriñ Pape Malick sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si nga xool sëriñ Babacar si ni mu bëggee njaboot ak ni mu ni mu sellee kanam gu lewet gi macha allah mbaax gi xoola sourire bu tedd bi yàlla nañu yàlla fayal suñu mag ñu yàlla boole amiin yaa rabbi amiin yaa maam Sidi Ahmed si mooy taw maam Sidi Hadj Malick c'est lui qui est parti en en en à la guerre bi bi tubaab yi ñëwee laaj njaboot gi maam Seydi Hadj Malick ne leen ñii ay ndongo lañ seen bàyyi joxuñ ma leen pour ma leen di yóbbu guerre xam-xam lañ ma sant ci ñoom bu delloo seeni loxo bàyyi nag bu ngeen leen soxlaa ñu jox leen bu dee soxla ngeen nag man aw ma lu dul Serigne Babacar Sy ak Sidi Ahmed bu ngeen leen soxlaa ma yóbbu leen. si lañ fils aîné de Seydi et de Sokhna Rokhaya Ndiaye il vit le jour à Saint-Louis en 1883 il de son père fut investi très tôt des responsabilités d'intendant et de de son père qui l'accompagnait souvent à l'intérieur du Sénégal la proposition le 19 octobre 1915 prévoit euh, les des quatre communes effectuer des services même titre euh, que les autres citoyens français, ce qui pourrait confronter à ces jeunes gens une citoyenneté durable dans le temps. La liste d'appels sous le drapeau portant euh, le 3172 des noms de l'année 1915, originaires des quatre communes dont Serigne Ahmed Sy devant cette situation euh, où le sens de l'éthique, de la citoyenneté et du devoir est mis à rude épreuve, El Hadji Malick Sy a dû s'incliner devant la volonté de Dieu. Son fils aîné devait s'incorporer dans les forces de défense vers une destination inconnue pour aller sans retour, laissant derrière lui une épouse résignée, deux filles en bas âge, Serigne Ahmed euh, Sy, Salonique en 1916. loolu ci kaw loolu. yàlla na ko yàlla yorom ci kaw loolu moom mi euh, ñaari bant yu jigéen la fi bàyyi moom mooy maamu Serigne alline Sall mi nga xamante ne moom lañu doon def ca jàmmalaay euh, bërki démba waaw waaw sa jàmmalaay waaw waaw macha allah donc leen njool fuuta mu waaw kay macha allah moom mii mooy maamu Serigne Alioune Sall moom donc bi Seydi Hadj Malick demee ca jàngu ba xaw ma ca daara ja euh, tubaab yi ñëw jël recruter njaboot yi ci daara ji Serigne Hadj Malick ñëw te fekk waxoon na leen joxu leen parole am dafa mer ba maara day taali mu ne tubaab bi nañu indi njabootu jàmbur gi léegi si noo tënk dina sax kawar bu tënk saxee karaw nag loolu àdduna day tukki problème yaa ngay démarré mbokk yi maa ngi leen di bàyyi ñu dem xool nag ñi nga xam ne ñoom la ñu invité ci plateau bi gis ngeen fii bu fekkee yéen a ngi dëkk Tiwaawoon mbaa dëkku leen fii ñun ñi yéen ñi nga xam ne dëkku leen Tiwaawoon jox nañ leen opportunité ngir ngeen xamal seen bopp ngir ngeen gis mënu leen a gis lépp nag waaye war nañ leen ci as tuut ndax dafa am waxtaan woo xam ne mu ngi ñuy xaar fii rek la ñuy broché une dernière fois door a daw. Haji Abdoul Aziz Dabakh ku ne xam na ko. 40 ans zéro faute. Ah, rakkam ju tedd ji nga xam ne mosul bëgg a feeñ maam Habib boo ko waxee fukki ndaw ci réew mi ñaar ñoo koy xam mu làmboo woon lépp nag waaye ormal ay magam fonk leen yar yar ay njabootam. donc ñu ngi nuyu sëñ Moulay ak sëriñ Sidi Ahmed ca États-Unis moom la fa mag ñi teg fexe na ba euh, état bu ne dafa bëgg def zawiya ba actuellement Baltimore jënd nañ fa benn église boo xamante ne euh, ñoo ngi koy préparé pour def ko zawiya ñuy ñaan ñëpp nañ ci bàyyi xel ku ci yónnee sa participation nga xool fu ñuy jaar ba yónnee ko donc xool sëñ Moustapha Jamil fii tamit dañ si def taxaw seetlu sëriñ Mansour et sëriñ Abdou Aziz Sy reçoit sëriñ Moustapha Bassirou Mbacké venu présenter ses condoléances à l'occasion du rappel à Dieu sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh keroog dëj bi ku ñëw di nga gis sëriñ Mansour daa toog sëñ Moustapha Bassirou toog sëñ Abdou toog ak njaboot muy recevoir ku ñëw da ngay jaale sëñ Moustapha Bassirou ku xam xam nga ku xamul nag dootoo xam. ba ilaa doo bàyyi dof yooyu nga continuer ju continuer suñu liggéey bu sell bi ñuy def. nga xam ne kër Seydi Hadj Malick lépp la ñu làmboo. yal na ko yàlla may wér waay dañuy jàng. maama ngi nii il est beau il est gentil <laughs> dañuy dañuy jàng dañuy am xam-xam. dañuy yéwén boo boo làmbee imaam lañu. foo leen fekk lépp loo xam ne diine soxla na ko peek nañu ko téye ko toog nag jàll ca gannaaw jiital njaboot ñi sant Njaay ñoo ne ci imaam yi Jóob Faal nga xam ni kon dañu nawloo la seen maam meloon nawloo seen i ay taalibeem ba jël ay njabootam yu jigéen di leen ko jox kon loolu moo moo nekk Tivaouane incha allah. on marque une petite pause histoire de se retrouver Serigne Sidi Mokhtar nga gis ko noonu ak euh, doom imam Abdoul Aziz Sy baax lii dafa rafet lii kan moo ci mën dara lii lii ñu def nii kan moo ci mën dara yéen nag di nag am na ay ñoo xam ne ci internet bi rek la ñuy doxlee xam nga doo gis ku yor aw rajo. mbaa di dem ci kër diine di taxaw di saaga ak di wax yenn yi wala xale yi nga xam ne ñu ngi leen yor ci daayira yi ñu leen yor ci daayira yi nañ leen jàngal jikko yu rafet yi ñu gis ci kilifa yi ndax loolu dafay permettre masse bi bu ñu dajee fu ñu mënti dajee muy ci penc muy ci internet du ñu xeebante dañuy wegante dañuy yor daayira yi nañ ci bàyyi xel am na foo xam ne duñu ko tëb euh, kii nga xamante l'érodi le savant ki sagal diine en manière générale nga xam ne civisme ba intellectuel niveau d' intellectuel am xam-xamam kon sëriñ Mansour borom daal ji yàlla na yàlla yokk leeram foofu la ñu mën a yem. bi ci topp sëriñ si Ahmed Tidiane nga xam ne sagal na sagal na sagal na lislaam sagal na lislaam ci dimension yëpp nag temporel spirituel lépp. kon moom it yal na yàlla yokk leeram nga ñëw fii kii nga xam ne góor gu tedd gi sëriñ Abdoul Aziz Al Amin Al nga xam ne ñun ndaw ñi tey fekkee génération mu ngëpp ñu def ñoo ngëpp ba vacciné ñu loo xamante ne tey ji loolu loolu mooy. Mohamed marque une petite pause histoire de se retrouver si maam Abdoul Aziz Al Amine la doon wax et ça c'est fort c'est émouvant c'est extraordinaire à tout à l'heure be. Give ma rusul woon maam nekkuma woo ci foto ma wuyu laa lii leer naa sama trondo sopp na Seyxana في النجاح lama bada li ma neex ci may dafa maanu lool ak taaru lool teg ci mën a tedoo te weeral ku roy ci mbay si danga raw yawmal qiyaamati doo dégg rii ليسان شقي والمتاريا في دبر في فجادنا أي دانا تجاه سبي سنبالا فردسي أم غلام jihaadal asri kenn du ko miin ku nekk seem bi na sampam dellu góor mi ki xar ndeysaan Cheikhi wal Muxtaariya ah. fi ndimbal waaw waaw si ay fajar dina ay daana tëjee si ngis tëloo damu woo ne ko di wut ci yow ku la naw xanaa taxaw te mu tey digle ka dee yàlla war ndeysaan cheikhi wal muxtariya bi di mbër waaw si ay faja dina ay daanam te jëlee sëñ Babacar jëwoo nga ku la gëm jëwoo neel tasuloo yaakaar jëm jëwoo ngëneel tasuloo yaakaari kenn ku la jëm si ne leen xeram ram te wut ne leen xeeram ramutani mi yéen ñëpp déglu ma tuut ne leen xeeram tani mi yéen ñëpp déglu ma tuuti bi uallimukum maaguwa sanu dir xalifatan ndeysaan Cheikh wal Muxtaariya waaw waaw si ay daanam ca baa sàkku ko bil am daay moo ko yeyoo tuus leen ca baat sàkku ko bil am ndaaki ndax moo ko yeyoo dam saji gaa ngi te tasbit xalifaay mi ko jat min al basiiti madidin kamilin sabar bu muy ka man ja bu muy meex te bu muy trompette bu muy guitare te bu muy fan fanile li war bu leen ko xiinal te bu leen mbalax man afada koy tere te bu leen ko xiinal te bu leen mbalax xalifa da koy tere te ba leen junjungu yi te ba leen mangoor تنوي كشعر مستفعلا بفاعلا مشفعلا بفاعلا بسيتنجي رك يومي دتبا سمر أتي خنجي إنه ممرك مايكي كجر ديدان سبك سي ديدان كنده كي رك ما متفر فرلين تنبي كتفر دورس te kenn du lare akrim bihi innahu haqqan li xayri wasar bur yàlla may na fi bay loo xam ne kenn amu ko kon ñaan nañu ko may nañu yaa yor jàmmi réew mi am di nguur gi am di diina ji ay bunu sàggan si Babacar ay bunu sàggan si Babacar ci wawan ku fa dul dem ñu dem bala ay bunu sàggan si Babacar gàmmu gi ku ca dul dem ñu dem bala ay bunu sàggan si Saalu bay ku fa dul dem ñu dem bal ay bunu sàggan ci waawan ku fa dul dem ñu dem bal ku fa dul dem ñu dem bal ñépp way na bay ci meloom alba bi sa sambana diwaani sambana coppit sambana borom bone kaare boobu sàkkir xalifatuma bay na samaatuma bay na ardi ku bëgg sëriñ baaba ko si de dellu sant mbay ci jikko meey kenn desul du rakk du doom wër na waati waawan aalim yaa ngi ñëpp la gën gi diina seeni gàllañ benn desul bu ñuy dëkk naan mooy mbërum ci waawan fas gi mbay séer ci loxoom xayru xalqilaaye ko moom jox ko mbay mu séere ci moom ak borom ci waawan moo tax ñi way sëriñ Babacar si bari nañu lool mbay naari nee nañu maalum fuuta nee nañu gongo wolof ni mbay daan naay leen loolu joolaa yaa nga naan kililing kalalang ku dem seccan kaala ku demba secca kala wiccan kaana ku waalo ginga fuuri danna seede leen loolu pël yaa nga naan alaa sukkoo alaa mbay si ngacca toon ngari gaay yo neɗɗo fof immo kotel galle sérigne babacar si sa iide ande nde laaɗo ar jaken galle khalifa qur'an hadis kayni keewi galle sérigne babacar si sérigne si waynan sérigne babacar si wakal mitbaru فوق القرات سيسكب مياغا كسكب من سحاب ويدرب وتلتتم الأموال من لج فكرتي كما يزيد البحر المحيط ويدرب لمت أبي بكر خليفة مالك درته النواحي شرفقا ثم مغرب يحاكي أبي بكر خليفة أحمد بحلم وعلم لا إلى الكفر يقرب يجدد دين الله بعد قرابك لدى الغرب lawlaagul masaajidu wa yuqrabu yuallifu bayna almuslimina qulubahum wa yamuru bilmaarufi wa huwa yalabu jazaahu ilaahu nnaasi xayra jazaa'ihi bilal kayla wal miizaanu thumma maghribu rakam ja way na ko mën a amin taxti junxi layli barqun diyaa'uhu bi shar'in wa gharbin amma am tal'atul badri am irtafa'a al-anwaar isalmal baraaqi'u am mimman yatalla'at lanaa lum'ata ad-dakhri haashaa wa kallaa kullu dalika lam yakun taamal tara ma qultu aqal hijri ala wa huwa nurun min khalifati malikin samiyin atiqillahi shaykhi abi bakrin simali alwara bahru shariati man awa fuul alulum alarifin bila nukri falillahi min shaykhi yadul sahabuhu ala malik almahbub fi sirri waljagri nasaran si waynan Serigne Babacar Sy il est marabout le pilier éloquent le plus élégant, le plus intelligent, le plus historique. Tous les marabouts du Sénégal, il a la lanterne, docteur, vous avoir, il a source de deux mères, la charia et la aqiqa. un grand homme ne jamais connaît propre de son pour propre pays. Se connaissait pas Serigne Babacar Sy Malick devait vous le dire. Il est beau, il est gentil, il donne de mbay. maam am ne bi te wéral nu ku roy mbay si danga raw yawmal qiyaamati it doo dégg ndeysaan Cheikh wal mutaariya fi di mbër waaw waaw fi ay fajar dina ay daanam tëjee soppay sëñ Babacar Si um nga lam bu ci gaadal asri kenn du ko mi ku nekk seem bi na sampam dellu góor mi ki xar ndeysaan Cheikh wal mutaariya fi ndimbal waaw waaw si ay faja dina ay daana tëjee dafay sëñ Babacar Si ngi si tëloo damu woo ne wut yow ku la naw xanaa taxaw temm tey digle ka dee yàlla war ndeysaan cheikh wal muxtaariya fi ndimbal waaw waaw si ay faja tasuloo yaakaar ku la gëm jawoo nga neel tasuloo yaakaar ike ku la gëm jawoo nga neel tasuloo yaakaar kenn ku la gëm si ku la roy roy na asxaab rasul ci lu wér xalil xalifatan ndeysaan cheikhi wal muxtaariya xidima waaw waaw fi ay fajar dine ay daanam tëye soppe sëñ Bamba war ne leen xeram ram te ni mi yéen ñëpp déglu ma tuut ne leen xeram ram te ni mi sunna la ne xeeram te ni miig yéen ñëpp dëkk lu ma tuuti bi uaalimukum maagu wa a sanu dir xalifatan ndeysaan cheikh wal muxtaariya waaw waaw dina ay daanam soppay sëñ Babacar tuus leen ca bàkku ko bil am daay moo ko yeyoo tuus leen ca baar ku ko bil am ndaaki ndax moo ko yeyoo dan saji gaangi te tasbit xalifaay mi ko jat min al basiti madidin kamilin ramalin wa waafirin rajasin bëgguli tama mamay bëgguli tama sabar bu muy kaman ja ca bu muy mex sabu bu muy trompet bu muy gitaar te bu muy fan fanile di li war bu leen ko xiinal te bu leen mbalax man afata koy tere te bu leen ko xiinal te bu leen mbalax alifata koy tere te ba leen junjungu yi ba leen mangoor can way ko ci ar musafilan bi failan musafilan bi failan basi tangi waaw rikki yow mi de tibaa ki samër ati xëngi innahu moom rek mooy ki ko jar day daane babaka si day daane konde kii rek moo mata far far leen ci ku ci far doorus te kenn du la ree akrim bihi innahu haqqan li xayri wasar bur yàlla may na fi bay loo xam ne kenn amu ko kon ñaan nañu ko may nañu yaa yor jàmmi réew mi am di góor gi am di diina ji ay bunu sàggan ci Babacar ay bunu sàggan ci Babacar ci wawan ku fa dul dem ñu dem bala ay bunu sàggan ci Babacar gàmmu gi ku ca dul dem ñu dem bala ay bunu sàggan ci Saalu bay ku fa dul dem ñu dem ba ay bunu sàggan ci waawan ku fa dul dem ñu dem ba ay bunu sàggan ci waawan ku fa dul dem ñu dem ba ñépp way na bay ci meloom alba bay na samaatuma bay na ardi ku bëgg sëriñ baaba ko si loxo ca kaw ko de dellu sant mbay ci jikko meey kenn desul du rakk du doom wër na waati waawan alim yaa ngi ñëpp la jiin gën gi diina seeni gàllañ benn desul bu ñuy dëkk naan mooy mbërum ci waawan fas gi mbay séer ci loxoom xayru xalqilaaye ko moom jox ko mbay mu séere ci moom ak borom ci waawan moo tax ñi way sëriñ Babacar Sy bari nañu lool mbay naari nee nañu maalum fuuta nee nañu gongo wolof ni mbay daan naay leen loolu joolaa yaa nga naan kililing kalalang ku demba seccankaala ku demba secca kala wiican kaana ku waalo ginga fuuri danna seedi len loolu pol ya ganan ala sikko ala mbaysi gacca toon ngari gaay yo neɗɗo fof immo kotel galle sérigne babacar sy sayiide ande nde laaɗo ar jaken galle khalifa qur'an hadis kayni keewi galle sérigne babacar sy sérigne si waynan sérigne babacar sy wakal mikbaru فوق القرات يسكب مياغا كسكب من سحاب ويدرب وتلتتم الأموال من لج فكرتي كما يزيد البحر المحيط ويدرب لمتي أبي بكر خليفة مالك درته النواحي شرفقا ثم مغرب يحاكي أبي بكر خليفة أحمد بحلم وعلم لا إلى الكفر يقرب يجدد دين الله بعد قرابك لدى الغرب lawlaagul masaajidu wa yuqrabu yuallifu bayna almuslimina qulubahum wa yamuru bilmaarufi wa huwa yalabu jazaahu ilaahu nnaasi xayra jazaa'ihi bilal kayla walmiidaanu thumma magribu rakam ja way na ko mën a amin taxti junxi llayli barqun diyaa'uhu bishar'in wa garbin amma am tal'atu albadri am irtafa'a al-anwaaj isalma albaraaqi'u am mimman yatalla'at lana lum'ata ad-dakhri haasha wa kallaa kullu dalika lam yakun ta'ammal tara ma qultu aqal hijri ala wa huwa nurun min khalifati malikin samiyin atiqillahi shaykhi abi bakrin simalil wara بعد شريعة من أوى فعول العلوم العارفين بلا نكر فلله من شيخ يدل سحابه على ملك المحبوب في السر والجهر نصران سوينا سرين بابا كرسي إلى مرابو le pilier éloquent le pilier élégant le pilier intelligent le pilier historique tous les marabouts du Sénégal il a la lanterne mu docteur bu savoir il a source de deux la charia et la Aqiqa, un grand homme, n'est jamais connu de son pour propre pays. Ce connaissait pas Serigne Babacar Sy Malick, devez-vous le dire. Il est il est gentil, il donne de kila ci ak yéen euh, fii ñuy euh, defee good morning spécial euh, centenaire bu Seydi Hadj si ñu am mbégte dalal kenn koo xam ne borom xam-xam la ñaar lañu waroon doon ak Souleymane Ba waaye démb ku nekk xam na ni waa Tiwaawoon yëpp danoo fanaan stade ba ndax dafa am xew-xew bu am solo ci événement wu centenaire bu fa amoon. ci kanam tuuti dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba moom xam-xam bi ko yàlla dénk ak gëstu bi muy amal moom Souleymane Ba ngeen mën koo jëriñoo yéen suñu ay ñu dellu si waat ci li nga xam ne moom la ñu amoon yéene waxtaanee fas ko yéene ànd ceeg euh, Serigne Assane si moom euh, Serigne Assane si euh, bu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin noonu lañ koy dàkkantele ñu ngi am mbégte di la nuyu di la bàyyi nga nuyanteeg. tey sëñ Al Amin moom mooy suñu bàyyi ñu waaw waaw waaw El Hadj Malick Sy Amin allah macha allah ñu ngi lay ziar di la bàyyi nga nuyanteeg ñu ñuy seetaan. bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah Pape ñoo ngi lay fay nuyoo bu baax di la ziyaara di la dalal duñu wax sax di la dalal ndax ëttu moom Cheikh El moom ëttu ëttu ñëpp la kon mën nga fi dalal nit ñi nit ñi mën nañ la fi dalal ndax yaakaar naa ne ëtt bi miin na la ci biir miin na la ci bitti miin na la ci kanamu kilifa yi ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu waa 2STV di nuyu kilifa gi ak ñi ñu ko bokkal ñëpp ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci liggéey bi di jiital ci nuyoo bi nag xalifa bi. Euh, di sunu wayjur di kilifa gi nga xam ne tey moom la yàlla dénk lisaanul xadara almalikiya mu yore kaddu gi di Serigne Babacar Sy alxaaji Mansour radiyallahu taala anhu ñu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla dolli wéram yàlla na ko yàlla dolli tawféex ak mbooleem ay rakkam yi nga xam ni ñoom la àndal ci liggéey bi di Seydil Hadji si Sy Abdoul baax Dabakh Serigne kër si Abdoul Aziz baax ak mbooleem usra famille maam Seexul Hadji Malick radiyallahu anhu yëpp mhm. ñu dalal la nuyu leen ci sa nuyu ñu nuyu la ci seen tur ñoom ñëpp euh, ziyaar leen di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla na yàlla dolli seen wér ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal fa tabarakallahu euh, ñun nag dañuy jéem a def de self de telle mu nekk ay questions yu basique mais ay questions yu ñu amal yitte parce que dunduñu 1922 bi Maodo di génn àdduna donc ce qui veut dire que wuñ bi muy génn àdduna waxuma la ak dundam te lu hmm. bari ñu ngi koy dégg jàngalekat yi ñiy gëstu diine xam ko lool ci moom te ndaw réew mi yëpp war nañoo mën a bénéficier wu ci icône bu mel ne Seydi Hadj Malick Sy mhm. d'abord gaaya ndar njarnde jak euh, nan la ko tudde ci jak saaw tiwaawoon makkatal mukram mhm. ba ci yenn dëkk nasaraan yi mhm. fu nekk teg na fa tànkam mais sa mission première a toujours été tasaare xam-xam mhm. ça c'est connu de tous parce que bis bu nekk ñu dégg oustaz ñu jàngalee ñu ko ci différentes facettes waaye tey dama la bëgg laaj ay questions yu simple te basique mhm. mooy Seydi Hadji Malick Sy lan la doon liggéey lan moo nekkoon liggéeyam mis à part jàngale xam-xam ak tasaare tarixa Cheikh na Ahmed Tidiane jërëjëf euh, Pape Sidi macha allah ñoo ngi lay ñoo ngi kontaan bu baax a baax ci question bi waaye boo ñu mayoon tuuti rek mhm. ñu ñëw ci li nga wax maam Seydi Hadji Malick xam nga Maodo dundam mën nga koo séddale ci trois parties mën nga ko def ñetti parti ba ñeenti parti sax laay wax Maam Seydi El Hadji Malick euh, fi mu jógee gars yi ni nga ko waxee léegi ci ñaar ñoo xam ni dëgg la duñu wax duñu sax tudd ne indi ay ay ay ay waajuram ak kay mën na nekk maam Ousmane mi ko jur bi jolof jolof maam mhm. Faa Wadd Wele mi nga xam ne mooy waajuram bu jigéen nekk waalo waalo waaye Maodo dafa judd ci ci milieu boo xam milieu xam-xam la cest pour njëkk rek wax la loolu milieu xam-xam en même temps mais mu judd ci milieu boo xam ni milieu liggéey la. Mhm. ndax euh, dafay am ñoo xam ni doomu leer la ñuy doon cest mooy kan dafa am ñoo xam ni seen lépp leer la seen cosaan leer la seen euh, dund leer la moo tax duñ mën a def dara loo xam ni lu lëndëm lay doon te ça dire que mooy que ñoom ndaw ñi nga xam ni tey ñooy dund ci jamono. dañu wax ni ba ilal abad ba yàlla di wal di lem di lem di lem dindu dindu asamaan bi ak suuf si ça veut dire que ndaw ñi dañ leen man di leen di leen roy di leen roy ci mbooleem mbooleem activités yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def te bi ci njëkk mooy que ni euh, dunde lu lew li ñuy tuddee alkasbul xalaal mhm. mooy que ni di dunde loo xam ne lu lew la maam Seyxul Xaaj Maalik Si radiyallahu taala anhu gis nga tool yi mu njëkk a am mu ngi ko am fu ñuy wax ngàmbu ci leen mhm. ca waalo ca waaw diggante gaaya ak dagana diggante gaaya ak dagana ngàmbu ci leen googu ay tool la woon Maodo judduwul rek dëgg la nekk topp daara ji ndax moom daf daan daf daan contre sax euh, mu wax ni maanaam dunde dunde diine Maodo gëmul woon dunde diine ça veut que mooy que ni di wax ñu di la fay wala di wax ñu di la di la jox alal di la jox xaalis sama Seex Alxaaj Maalik euh, dafa waxoon ni yàlla daf ma boole ci ñi nga xam ni bu ngeen gisee ma toog di jàngale du caage ni jàngale bi dama ciy fayeeku wala jàng non non non dafa yëg dafa yëgu jàngale bi mission la xam nga yónent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man yàlla dafa maa yónni pour ma ñëw nekk professeur pour jàngale. Mhm. mais kooku jàngale googu daf doon defar jikko yi te nit bi bu amul jikko ça veut dire que mooy que ni moom. dutul am benn dutul am solo ci ci kaw suuf. ça c'est la manière à Maodo de bâtir des vies ni mu doon tabaxee dund. ni mu doon tabaxee dund. Mansour mhm. El Hadj Malick ni mu doon tabaxee dund mooy que ni moom dafa ñëw bi mu jàngee ba xam. mais ci biir daara ji mu nekkoon di jàng am na temps ci la ci la ber tool xam nga way juróom bu jigéen baykat la woon waykat bu bay woy way juróom bu jigéen lim xamoon mooy dem ci tool yi dugg ci euh, napp gi ndax ku xam waalo xam na ko leen ci mhm. bay ceeb bay soble bay leneen ak leneen ak leneen ñoom loolu lañ doon dundee Maodo nag ci toolu yaayam sax la jël defe naa liggéey ci lu ah? ko yóbbu toolu maam Fawa toolu maam Fawa del muy muy ca nga mucc leen googa waaw foofu la foofu la béyee la mu bay mhm. ci diggante bi mu juddoo ci mille mille huit cent cinquante trois wala cinquante quatre ci ay ay ay ay ay ay dates yu wuute ni bii la juddoo wala bii la judd mhm. mais à mille huit cent quatre vingt huit quatre vingt neuf la mu bay ba dem màkkatal mukarama ci foofu la ko béyee mhm. mooy kasbul alal bi mooy ce qui veut dire que lépp li mu am daf ko lew lépp lu mu am moom am Seex Xaj Malik daf ko lew du lépp du addiye déedéet du lépp du addiye parce que mm-hmm. loolu yëpp dafa demoon ba dafa yëgoon ni jamono bi dafa demoon ba gis ni jamono bi ñu ngi ko def loolu mu nekk mu nekk mu nekk slogan boo xam ne ci seen dund lay doon c'est-à-dire pour dundee addiye wala dundee naa nga wala dundee Maodo moom bi mu ñëwee li mu njëkk a def rek mooy bay tool xam nga dafa dem bi mu man dinañ ci ñëw ci kanam mm-hmm. mais bi mu demee Màkka dafa am lu mu ñaan boroomam dafa am lu mu ñaan borom dafa ñaan boromam ñetti ñetti mbir ñetti mbir yi mu ñaan boromam mooy que ne yàlla maa ngi lay ñaan parce que bi muy bi muy dem màkka xam nga lu taxoon mu dem màkka pour euh, dëgg la ziyaar ji yonent bi salaa salaam waaye ak mottali ponkam bi nga xam ne mooy farataam waaye dafa amoon yéene bu demee du dellu siwaat mhm. du dellu siwaat Sénégal ah, loolu la dafa am du nu mu bëggoon a dundee diine am nu mu bëggoon a dundee diine te mhm. gisul woon fii diine bi léegi mu ni daal fii aada bi mu ni mhm. aada daf fi bari te bi mu demee nag ba yëg nag ni am na benn lisaan boo xam ne lisaanul xaal la maanaam benn làmmiñ boo xam ne moo wax ak moom mais yëg yëgul ni dafa yëg ni sallallahu alayhi wa sallam moo wax ak moom ci làmmiñu benn nitu yàlla mhm. ñu ne ko yow dafa mel ni day danga nga fas yéene toog fii fa surtout lu ne dellu foo dellu fa nga jóge woon mu ne ko waaw loolu de mooy sama yitte mu ne ko ëpp naa def mu ne ko xanaa xamoo ni nga dem jubbanti benn nit bu naroon a dëng nga orienté ko teg ko ci diine xanaa xamoon ni moo gën àdduna ak li ci biiram mhm. seen xaj Malik automatiquement ca saasa mu yëg ni kon kii wax ak moom nii du moom du kii mais yonent bi moo wax ak moom sallallahu alayhi wasallam ci làmmiñu kii Seydi ma Malick daal di fobosu nag ci la fobosu nag jaar fa mu jaar jaar fa mu jaar ba ñu bisiwaat mais la mu la doon yéene mooy bu demee toog ndax aada bi mu gis fii ak dund bi mu gis fii moo do gëmuloon boobu aada mhm. gëmuloon boobu dundin dund boo xam ne notel la dund boo xam ne diine amu fi dund boo xam ne charia amu fi dund boo xam ne liggéey amu fi yaa ngi yaa ngi yaa ngi jël alalu nit ñi bi bi ghayri tiibi nafsihi cest à mooy que ni yaa ngi jël alalu nit ñi di ko lekk ci lu dul seen teewu bakkan mhm. te Maodo dafa wax ni nga dunde nga dunde diine nee na man Maodo ma jël sama tama dem ca marché ba di tëgg ñu di ma fay moo ma gënal may dundee toog di dundee diine di laal di ñu may jàngal di jàngale ñu di ñu ma fay. ça c'est c'était sa vie. loolu moo nekkoon dund Seydi Hadji Malick moom ni mu ko jàngalekat la. Mhm. baykat la baykat la woon. te yarkat la woon yarkat la macha allah mais est que moom amoon na ay euh, direction. entrepreneurial. Mm-hmm. est-ce que ñi ko doon wër. Mm-hmm. doon na leen exhorter à aller vers le travail. Mm-hmm. est-ce que am na ay exemple est-ce que am na lu mu daan santaane pour nit ñi doon ko liggéeyal. wala nit ñi daan liggéey pour am lu ñu dundee. parce que ñu ci bëri sous l'arbre à palabre bu ñu amee benn sëriñ bu ñu àndal mu leer leneen àddiya dina ruus ci wetam. wala mu mën leen a yor dañuy far boo foofu noonu. du ñu def dara. lépp ils vivent au crochet ou aux dépens de quelqu'un. ndax maam Seydi mu sell mi. daana ñaax ñi ko daa jege ngir ñu liggéey. bien sûr waaw Maodo euh, Pape Sidi Maam Seydi El lu mu nekk rek daf cee daan ñaax ay njabootam gis nga nga mucc leen googu mu nekkoon wax naa la ni foofu la débuté léppam loo xam ne moo nekkoon ay activité am ci wàllu diine ci wàllu social ci wàllu àdduna pour rek jàngal nit ñi parce que moom daf daan wax ni. man Maodo ma may ma ma dunde alalu jàmbur ma toog wax naa la ko léegi ma dugg ci marché bi di tama tëgg moo ma ko gënal c'est-à-dire pour feeñal rek ni ñi mu àndal mu ngi leen di bàyyiloo xel te boo xoolee tey ay muxaddamam yëpp boo xoolee muxaddamu seen xaj mag dama dama jëlale dina boo ñëwee ci ay doomam tey en ah, kay dinañ ci ñëw mais boo xoolee ay ay njabootam ñi mu ñoom Serigne Aline Gueye ñoom Serigne Alhaji Rawhan Ngom ñoom Mame Abdou Hamid Kane Mame Abdou Hamid Kane commerçant la woon bu mhm. mag ca Kaolack mhm. euh, euh, liggéeykat la woon baykat la woon mhm. alxaji Rawaan Ngom euh, baykat la woon tabaarakallaahu commerce la commerçant la woon euh, ak ñu mel ni ñoom maam Thierno Kanji ci maam Thierno Kanji ca Njaarim mhm. ñoo ñëpp dañu dem Maodo daf leen a daf leen jàngal ba pare mais waxu leen ne bu ngeen demee rek toog leen ci diine ji toog leen ci jàkka ja euh, minbar bi allahu akbar asalaamaaleykum daf leen wax ne leen ni li tax ma fàggu saaw ñëw jóge ndar ñëw njaarnde xam nga la ko indi la ko jógee la ko jëlee ndar indi ko njaarnde dëgg la histoire la bu gudd mën naa am du fi xaj waaye teewul bi mu demee njaarnde euh, la mu ñaanoon moom ca màkka yàlla nga may suuf su lew su ma mën a dundee ba du ma dundee ñàkku taalibe yi mm-hmm. cest à mooy moom mosul gëm ni euh, nit ki dafa war a ñëw di ko jox xam nga dafa am benn livre bu mu bind tuddee ko wala tarka nan xibbi li daari fanaayi fa tax sara fi daaray ni doona miraay ca téere boobu dafay wax ca biir livre bi dafay wax ni rawmal hadiyati xirfatan tahadaw biha sirran xasima ganaay cest à mooy que ni ñi nga xam ne dañuy dundee hadiya mu ni Maodo man sàkkuwuma boobu bañuma ko nag nee na bañuma ko ndax hadiya dafa bokk ci ci ci suñ ci suñu diine ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, shérif la te kenn du ko jox lu dul hadiya mu ni bañuma ko mu ne waaye li ma bañ mooy nit ñi def ko mu nekk seen métier. Hmm. moo tax nag loolu foofu la doon ñaax ay njabootum toujours moom moom Seex Haj Malik di leen wax ni bu leen toog di dundee hadiya bu leen toog di yaakaar ni man Maodo lii may lii may def sama métier la non non lii yàlla moo ma ko digal ma di ko def mais yéen ñii kenn ku nekk ci yéen maa ngi lay digal nii ginnaaw bi nga jëlee sa livre ba pare am na benn téere bu ma bind muy xantaratal murid c'est-à-dire mooy que ni pont bi nga xam ne dafay jàngal nit ki nan lay jàngee nan lay amee xam-xam waaye nan lay amee wërsëg waaye nan lay nan la fanam di guddee nan la wërsëgam di yaatoo ba téere boobu ca biir daf ca wax ni yow mi nga xam ne sax yaay ndonga liy jàng ci daara ji boo demee ba yëg ni sa xam-xam xaw naa bënn ci benn côté ndax xam nga xale bi ngay tegal baasin ci àlliwaam mhm. mënul dem di di def lu mu lu mu dundee xam nga loolu léegi nag Maodo nee na boo demee ba sa xam-xam xaw yaa tuuti digal naa la euh, li ngay jëndee téere ak li ngay jëndee mbub moo sol Maodo nee na la demal sax yenn saa bu nawet jotee wala soo amee foo mën a def benn travail tuuti benn liggéey tuuti nga dem liggéey pour am loo jëndee téere mhm. pour am loo mën a mën a dundee pour bañ rek toog jàpp ni taalibe la man dama jàpp rek dañ ma war a jox dañ ma war a sarax dañu war a nangam dañu war Maodo dafa dàq loolu ci ay njabootam ça veut dire que mooy ni moo tax euh, euh, li mu dund yëpp yëpp yëpp moom moom Seex Xaj Malik daf ci boole liggéey daf ci boole commerce Maodo kaana fallaxan Maodo euh, baykat la woon gaa. Hmm. waaye kaana taajiran maam Seex Xaj Malik commerçant la woon daf daan daf daan ubbi daf daan dafa amoon ay boutique daan jaay dégg nga nangoon naa ci làmmiñu Mawlaa Yasri Abdoulaye Salamine mu ni maam Seex Xaj Malik daan na jaay ba dafay jaay sax Ricles te yëgul xamul li mu jaay Ricles la. Mhm. nee na benn bis benn kilifa moo ñëw rek nee na ci barab bi muy bi muy jaayee daal di ni ko waaw xanaa xamoo lii lan la mu ni ko déedéet mu ni ko xaw ma ko man de maa ngi koy jaay rek nit ñaa ngi koy jënd ak yeneen yi nekk ci biir boutique bi mu ni ko lii la dafa bokk ci li nga xam ne dafay tax nit mandi mu ni ko nga ni ah. <laughs> Maodo ne ko xaw ma ko woon. xamu ko mam sal xaaj Malick dem jël loola dem jël mandiluwut mandilu moom xamul loolu xamu ko dem jël dem jël dem jël lam ca stocké woon yëpp ci boutique ba gas ba mu xóot maanaam ko ci la ministre ab mu ni gas ba mu xóot nee na mu wax njaboot gi ne leen jëlal leen ma kees yëpp ngeen indi ko ñu jël kees yëpp mu suul ko sotti ci biir lépp suul daal di taxaw ci kaw jal bi fi mu ko suul daal ni alhamdulilahi rabbil alamina am naa kóolute am naa yaqin bu wér ni yàlla dina ma jéggal bu fekkente ne am naa ci benn lu may ci topp ndax la taxoon ma koy def xawuma ko mhm. kon tuub naa ko te duutuma ko defati wallaahi c'est-à-dire moom loolu mooy leen tudde an na dama commerçant waaw te commerce commerce loolu ci la doon dund commerce boobu daf ci doon dund mais teewul tamit daf doon daf doon bay bay moom ci lañ ko gën a xamee moom Seex mhm. Xaj Malik mais nettali nañ ma benn histoire euh, bu se Serigne Babacar si ak way juróom wu jigéen can euh, ga Seydi Aj Malik Sy ci tundu ndar wi Mm-hmm. ku fi ëpp luñ ko cane mm-hmm. ba mu génnee ñetti téeméer donc ce qui veut dire qu'il avait le culte du travail te boobu jàng boo ko yóbbu woon ndar mm-hmm. donc à oh. bas âge il était un travailleur bay mën denc lu tolloog ñetti téeméeri dërëmi nguur à l'époque ce qui est énorme comme xaalis waaw loolu xam nga Maodo c'est-à-dire mooy que ni masal Haj Malik c'est-à-dire li ma la wax rek moom toujours que ni euh, jëfam ak yitteem mooy que ni moom du du toog ne leen jox ma moom toujours rek lu lu ñuy def dafay fekk si boo gisee loolu nga muy histoire boo xam ne maam Roqee Ndiaye na mm-hmm. anha di wayjurum seexul xalifa di wayjurum maam Sid Ahmed si radiyallahu anhum bi mu ko jëlee muy doomu ndar parce que ku nekk xam na ndar seen seen culture na muy doxee dañu xaw a am tuuti dañu tuuti bëgg bëgg nañu bëgg nañu bëgg nañu sañse bëgg nañu bëgg nañu fonk bëgg nañu ku fonk nit mm-hmm. bëgg nañu ku yëg nit maam Seexul Xaj Malik di di benn alpulaar nu ma ko mën a tuddee di benn tukulóor bu jógee bu jógee Jolof waaye di benn waalo waalo bu jógee gaaya ñëw fa sàkku xam-xam ba jot si foofa ñu jox ko soxna si soxna si gis ko soppal ko boppam ñu jox ko ko bi ñu ko joxee ndax loolu dafa yàgg ci diine bi ñu ko ko joxee maam maam Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu euh, ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ak soxna si ñu jàpp ni Maodo benn benn woyof mbubb la rek mu ñëw ci biir kër gi ñu jox ko ko ndax moom fu mu mës a ñëw rek lay yitteem objectif am gaa mooy que ni fexe ba xool nan lay amee barab ñaari barab barab bi benn bi fa teg ay téeréem bi ci des fa lay jaamoo boroomam. Mhm. beneen bi ci des mooy que ni nu muy def ba mën a am lu mu dundee cest à mooy li ma la doon wax kasbul xalaal kasbul xalaal boobu mhm. c'est-à-dire Maodo ci loolu la doon dund bi ñu ko laajee lu mel noonu dafa dafa dafa dafa dafa wax soxna si laaj ñi nga xam ne ñooy ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay dendandoom mhm. laaj leen waaw lan mooy li nga xam ni tey bu ñu ko joxoon soxna si dina baax ñu ne ah fii de seen kii nangam na la nangam moom Sall Hadj Malick dafa jëndi ñett dañu li nga wax léegi ñetti téeméeri dërëmu ngurdu jox ko ko. boobu jamono c'était beaucoup d'argent jamono ay ay mën ñu wax ni ay million la. ay millions la l'équivalent mais soxna si moom it voilà ëpp na loolu. parce que mais soxna si. soxna si moom it ngor it. amaat yëg-yëg. jël xaalis bi jël xaalis bi indil ko maam Cheikhul Hadj Malick. Ah. ne ko bii jox naa la ko hadiya maa ko moom mu ne ko waaw mu ko lew na ma doom mu ne ko waaw mu ni ko man déglu ma nit ñi li ñuy wax mu ne ko jox nga ma ko maa ko moom waaye lii ma la jox de jël benn benn benn benn xaaj bi ne ko jox naa la ko hadiya ziyaare naa la ko mu ne ko beneen bi mu ne ko maa ngi lay jox nga jëndee ko ay téere pour sa alliwa gën a mën a yokk mu ko beneen bi maa ngi la koy jox pour nga ñaanal ma doom ju barkeel sama digganteeg yow allahu akbar ndax Seex Xaj Malik ne ko waxuma la sax doom ju barkeel waaye di nga am doom joo xam ne dina xam téere yi ba xam ne nekk ci ginnaaw téere yi moo tax xalifa Ababacar moo tax xalifa Ababacar si radiyallahu anhu li ko. mais c'est ce genre d'histoire qu'il faut raconter aux jeunes xam ne en étant très jeune Cheikh Seydi Hadj Malick. Mhm. il a privilégié le travail ñu bari léegi ci ndaw ñi dañuy toog yor baraada yor kaas nekk ci bopp koñ bi di naan ataaya naan waaw yàlla baax na wala gouvernement bi defu fi dara alors que da nga war a xëy fajar alaaji taal ngol-ngol ñaare dafay wax naan ñi war a tabax réew mi en ñoom ñëpp ñu ngi nelaw. <laughs> voilà et puis c'est très très vrai. xam nga. Ah. Euh, bëgg naa bëgg naa bëgg naa xamit ci ndaw ñi mu daan jàngal mhm. alxuraan mhm. mbaa jox leen tarixa mhm. ngir ñu euh, mën a jëfan jëflanteeg xadra juma wasifa lanzim euh, sart yi tarixa bi tënk ni muy laajee temps naka lañ ko doon booleeg liggéey ak kan moo doon nekk le modèle de jeune parfait bu Seydi Hadj Malick Sy daan tëgg ba ni kii kat defar naa ko ba mel na ni ma bëgg mu mel kooku nan lay mel maam Seexul Hadj si Sy <coughs> radiyallahu taala anhu li nga wax cest à Maodo moo denk nit boo xam ni dafa dafa lay jàngal yar la xam nga ñaari façon la ci sëriñ ba ñetti façon ci sëriñ dafa am sëriñ boo xam ne moom ñu tuddee cheikhu taalim c'est-à-dire xam ne dafa lay enseigner rek ak ki nga xam ni cheikhu tarbiya la ki nga xam ne daf lay daf lay éduquer daf lay yar mm-hmm. ak ki nga xam ni daf lay defal tarxiya cest à mooy kay daf lay dafay yéegee sa ruux dafay defar sa ruux ba nga nekk nekk mu nekk mu nekk mu tasawif pire ki nga xam ni sa ruux daf koy dafay laab maam Sall Hadj Malick dafa nekkoon sëriñ boo xam ne cest à ci biir daaram dafa dajale woon mbooleem xeet yi nga xam ne mooy tax nit nekk nit mbooleem xeet yi nga xam ne day tax nekk nit xam nga boo delloo ci tuuti ma indi yàlla dafa wax ci alquranul karim ne huwa alladi arsala rasul huwa alladi arsala rasula fil huda wa diinil xaq mu ni dama yónni sallallahu alayhi pour mu nekk koo xam ni eh, dafa ñëw pour defaraat diine mais mu nekk koo xam ni diine boo xam ni diine bu wér lay doon bu sell te du ñàkk nag ëllëg ñoo xam ni ñooy ñëw taxawaat diine boobu mam sel xaj malik moom yitteem Pape Sidi mooy que ni moom euh, ñu nga ñu ko waroon di ay ndaw ñu ko waroon di ay ndaw mu leen daan orienté ci diine euh, ba ndaw li nga xam ne dafay naaje yeew ma téere boobu ma la ma la wax ni moom la bind muy muy xantaratul murid boo demee ci téere boobu mam sel xaj malik dafay wax ni euh, nit ku baax warul biddanti <coughs> nit ku baax warul biddanti nit ku baax warul naaje yeewu mu ni ndax loolu teel a yeewu bañ a biddanti mu ni loolu dafay tax sa wërsëg day gàtt xanaa xamoo kii nelaw ba 10 heures wax mas naa ko wax ko ci benn télé Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon wax ni mu ni man dinaa jaaxle ñu ni ko mu ni euh, ñaar yi ñoo fi nekk ni ko mu ni ki nga xam ni yitteem paase na yitteem paase na mhm. euh, moom xamul sax ni yëgul ni 10 heures jot na yitteem yëgul ni 10 jot na ak ki nga xam ni yitteem àggul ci ni moom yëgul ni 10 heures passé na cest à ki nga xam ni tey moom bu xëyee ma nga ca liggéey ba ma nga ca tool ya ma nga ca marché ba ma nga ca commerce ba kooku du sentir ni bu 10 heures jot sax du yëg ni 10 jot na ak ki nga xam ni moom day tëdd di nelaw di nelaw di nelaw ba 11 heures midi du yëg ni 10 heures passé na ça veut dire que mooy que ni façon nit yooyu façon nit yooyu bokkuñu ñoo xam ni ñoo leen di yar moo tax maam Seexul Xaj Malik dafa jàngale wax ni ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati c'est-à-dire loolu Pape Sidi li mu lay jàngal mooy Maodo radiallahu taala anhu moom yitteem yëpp moo doon rek fexe ba euh, defar nit ki ba yitteem kawe moo tax danaan wax ni bu leen biddanti boo gisee wasifa euh, boo demee ci tarixatu tijaniyatu yetu boo demee ci tariqa Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiallahu anhu euh, la mu bind mooy que ni wasifa suba wala nga wasifa ngoon wala bis bi foo ci wasifa baax na benn yoon. Mhm. man Seydou Hadj Malick bi mu ñëwee xam nga da ngay gis ñu naan wasifa suba wasifa ngoon mooy baat bi nga tudd léegi. Mhm. mooy laazim. Mhm. c'est-à-dire laazim suba laazim ngoon teg ca taalibe cheikh fii duniyaa wa uxraahu yaakaar naa noonu la ko waykat yi di wayee. cest à pour wan la rek ne la laazim boobu nga wax ak wirdu boobu boo gisee Maodo ni dee leen teel a yeewu. di ko def di ko def. chariatul islamia daf lay wax sax ne la ni gis nga boo jullee Maodo dafa bind ci téere boobu wax ni boo jullee fajar ba noppi nee na bul gaaw a gaaw génn jàkka ji xam nga julli fajar rek génn ci jàkka ji mam sel xaj malik nee na dafay tax sa wërsëg bi nga waroon am ak euh, gudd fan bi nga war a am dafay gàttal sa wërsëg en même temps dafay dafay dafay gàttal fan mhm. moo tax moom mu doxale foofu wasifa suba bi bu ñu jullee fajar ba def seen i lawraat def seen i laazim def seen i seen i seen i yooyu ba pare mu lal mbalaanu wasifa mi lalu balaandu wasifa mi suñu génnee saafonte nuyonte ñay dem ca tool yi dem ca tool ya ñay dem ca marché ba dem ca marché ba ñay dem defi leneen def leneen mam seel xaaj Malick mi nga xam ni yàlla mayoon na ko bi mu demee ba tollu fenn fi euh, nekkatul koo xam ne dafay dem ca tool dafay dem ca marché ba dafay am ñoo xam ne ay doomi jullit lañu pour ñu ñëw Maodo jàngal leen Maodo day lal daal di lal dar sam mhm. ñu bëgg a jàng si ñëw jàng si ñay dem tool bu ñu demee tool yi ba pare ñu bi ñu nekkee ci daara ji dañ daan wax ni boo dankee suuf si boo dankee suuf si mu dank takk leen téere yi te dem ca toole soo dankee suuf si mu tasaaroo ci say loxo tekki téere yi te toog jàng. maanaam bu bàq bi ñëwee. bu bàq bi tooyee xipp. nga xam nga bàq bi soo ko soo ko dankee. mu mu ni niit mu ni niit takkal téere yi dem ca tool ya. te dem liggéey dem liggéey waaye nag soo soo soo soo dankee suuf si nag mu tasaaroo ci say loxo tekkil téere yi te xam ni jàng jot na. si c'est période vacances ak période euh, liggéey ak ak période liggéey. voilà dafa am la dafa am dafa am benn culture boo xam ne dañ ko am ñun Afrique. Mhm. dafa am président bu tudd Léopold Sédar Senghor. Mhm. nawet dafa jot mu gis xale yi nekkoon ci école française bi yëpp wasaaroo. Mhm. saa bàyyi taal golgol mu laajte ku ñuy wax Baye Lamine Diack ne ko. naka la ñu mën a def pour occuper toute cette jeunesse mu mhm. ne donner leur un ballon ils vont s'occuper avec les ASC associations culturelles et sportives aujourd'hui mhm. nawetaan li muy yàq ci réew mi mu mhm. ëpp li muy defar ci booleeg sëriñtu ñi waroon a am carrière sportive bu baax ñu leen ba ñu yàqu ñi nga xam ne dañuy xëy di xeex suba ngoon guddeeg bëccëg estat bu ñu defar ñu gas ko génne gazon bi suul fa ay xon y a beaucoup de corruption li muy li mu li li taxoon a jóg nawetaan à base c'était pour defar mais tey le le le modèle de ces Cheikh Bamba le modèle de Cheikh Al Islam Aladji Ibrahim Niass le modèle de Seydi Hadj Malick Sy. Mhm. c'est que jàng bu weesoo liggéey daf ciy sës rëkk. Mhm. surtout ndaw. Mhm. aujourd'hui on a un débat qui obnubilé euh, qui omnibule le Sénégal c'est la politique matin midi soir dafa mel ne comprimé bu ñu bindal. mais da ngay dégg par ailleurs ñu naan Seydi Hadj Malick Sy est un éternel inconnu le méconnu de la nation. et pourtant. quand on regarde de près dafa mel ne ki nga xamul da nga mm-hmm. koo gëstu waaye foo mësaa gis deux cent mètres wala trois cent mètres mm-hmm. dëkk boo dem di nga fa gis zaawiya bu mu fa samp mm-hmm. et c'était une stratégie de contre contrecarrer sans piper moo waxut moo waaye mu ngi def li muy def bay expansion wu diine fu nekk mu am fa muqaddam mhm. am fa zaawiya ñuy wasifa suba mhm. di wasifa ngoon di lanzim di xadra juma di laal malaanu wasifa di def yooyu yëpp mhm. kon kooku il était en train de mener une politique et aujourd'hui la politique elle est d'une autre manière la stratégie de Maodo par rapport à la politique de l'expansion sa stratégie ça venait d'où quelles étaient ses inspirations si fan la daal sukkandiku parce que ñii dañ naan la nit si ñii ne la machiavélique ñii ne la man ci aspect de démocratique bii laa sukkandiku mhm. mais Maodo fan la doon jëlee inspiration stratégique am euh, une dernière question peut-être parce que taal waaw parce que macha allah li nga wax léegi lu am solo la Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu xam nga moom daf daan wax ni ndaw da koy da ngay fexe ba du bul ko tere mooy yàlla waaye da ngay fexe ba bu mu am jot gi mhm. occupation. occupation da nga koy occuper ba nga xam ni du du am du am temps sax pour génn dem defi naka sudul noonu cest à mooy que ni tey bu ñu nee tey nawetaan bu bu nawet jotee daara ji li ñu xamoon bu njëkk bu nawet jotee eh, sëriñ Abdoul Aziz Al Amine la mu daan bay ca buleel ca tool ya bu mu nawet musaan jot day buub day xam jël njaboot gi yëpp yóbbu leen tool ya maam seel xaj Maalik Sy radiyallaahu anhu noonu la daan def ak njaboot gi jagsaaw gii fu nawet musaan jot mu mu mu mu mu ni nañu nañ ñëpp teg téere yi ñu dem bay ñi nga xam ne ay muxaddam lañu mu wutal leen ay tool ca wet ga ñi nga xam ne ay njaboot lañu am ay njaboot mu wutal leen ay tool ca wet ga moom toolam nekk nii yeneen tool yi muxaddam yi nekk nii yeneen tool yi muxaddam yi nekk nii c'est-à-dire que ni boo gisee ñu naan toolu àllarba loolu moo daan tax cest à sëriñ bi dëgg la jàngalekat la mais dafa am dafay bëgg dund am na ñoo xam ne bëgg nañu jàng cest à day ñëw jàngal leen bu àllarba jotee ñëpp bàyyi seen tool ñëw ci toolu sëriñ bi bàyyile ko mhm. mais jàppuñ ni sëriñ bi dafay not dafay not njaboot gi c'est-à-dire que Malika yi moom moom dafa dafa leen di jàngal voilà da leen di jàngal moo tax jàngale na di jàngale ba ca biir di bay ba ca biir bi dégg ba gars yi wax ne dañuy wax ni dañu dem ba ca biir ñu ni waxtu julli wi jot na maam Seyxul Xaaji Maalik sara yoo xam daan ni gars yi teg leen gopp yi ngeen ñëw ñu julli bi ñuy bi ñuy julli ñu wax ni euh, mag ñi daat ko ni waar wi lañ doon àggale soog a ñëw ci julli gi man Seex Alxaaji Maalik keroog dafa xaacu wa taariku aw xaatin li xidmati cheikhihi ka xaabidi asnamin bi xeyri mirai c'est-à-dire mooy que ni yow sa sëriñ moo la gënal yàlla hmm? topp sa ndigalu sëriñ moo la gënal topp ndigalu yàlla man Seex Alxaaji Maalik ni ku ko def yaa ngi jaamu xëram wa taariku aw nee képp koo gis mu bàyyi waxtu julli nee na topp ndigalu sëriñam ndax tool yi wala ndax waar wi wala ndax nangam ba bàyyi ndigalu sëriñam maam Seydi Hadji Malick ni yow nee na yow kii jaamu xëram yéen a yem jàng du wees leen foofu information gis nga loolu maam Seydi Hadji Malick yow Pape Sidi mhm. c'est-à-dire mooy kañ dafa nekkoon nit boo xam ni euh, li nit ñi war a roy ci moom dafa bari mhm. mooy que ni moom nekkuloon sëriñu kese kese kese moom dafa nekkoon sëriñ boo xam ni tey tey waalo waalo la jolof jolof la mais Maodo dem na Saalum gis nga kajoor gi li ko fi samp mooy diggante njaarnde ba Tiwaawan mhm. c'est-à-dire la xam naa kooku alxaaji taal yaakaar naa ni moom loolu historien bi laa koy bàyyi moom moom lañ koy bàyyal boobu <laughs> moom ndax moom ndax moom kajoor kajoor la waaye Maodo mhm. li ko indi njaarle c'est-à-dire bi mu ñëwee bay ñëwaat fii toog jàngale mais teewul mu ni nañ ma wutal foo xam ne fa laay mën a fa laay mën a faggo sama dund mu am jeg saaw loolu foofu nag fa la jaarale gis nga xale yi tey fii jamono toll nii tey Mansour ma Malick ñoom waroon nañ di ko roy bu nawet jotee bu nawet jotee ñu aj lépp loo xam ne tey dafay jëm ci wàllu fo xam nga tey ñu ngi ci nawet waaye yaa ngi gis ne tey ba léegi ndox mi nañu bëggee mu ñëw ñëwewul hôtel yi euh, tool yi ay paa rek a fay nekk ay paa ay paa ñoo fay nekk weer fee football beeg caaxaan bi yooyu yëpp mam Seex Haj Maalik Si radiyallahu anhu daf ko daan daf ko daan xeex pour rek bëgg njaboot gi mu occupé leen ci diine occupé leen ci charia occupé leen ci tarixa bi moom lii moo nekkoon objectif am ça veut dire que mooy que ni moom musul wax ni euh, ñëw leen tëdd nelaw ñëw leen football yi déedéet dem leen foy yi déedéet daan na wax nag ni njaboot soo ko bëggee yar da ngay fexe ba doo du tal du tal dem foy yi da ngay fexe ba bu jàng jotee ngeen ko demal jàngi. Mm-hmm. bu dem ca tool yi jotee ngeen ko demal ca tool ya bu bay jotee ngeen ko demal bay bu def fekkente ne dafa war a def commerce parce que jamono bi nañu Babsi nañu bañ a naxante. Mm-hmm. xam nga lu tax mooy que ni euh, dinaa am liggéey ci sànni xeer dinaa am liggéey ci toj kër jàmbur wala dinaa am xaalis ci nangam. moom seen xaj Malick dafa ñëw dindi loolu yëpp moom dafa ñëwoon pour jàngale fexe ba ñoo ñëpp mu ne leen déedéet du noonu nii la saaga nit ki du sol foo tollu saaga nit ku baax. moom seen xaj Malick dafa daan dafa yar sa làmmiñ dafa yar sa xel dafa yar sa xol. ba nga yëg ni yow jullit bi ni euh, nga xam ni moom la Maodo indi woon ngay ndaw ça veut dire mooy danga nga war a delluwaat ci njàngaleem maam Seexul Xaj Malick war a delluwaat ci njàngaleem comme ni nga waxee léegi si Ahmadou Bamba Seydou Ibrahima ñu mel ni ñoom ça veut ñoom li ñu doon jàngale lépp mooy que ni fexe ba nit bi ñu orienté la ci diine. Mhm. orienté la ci àdduna ba nga xam ne yow ëllëg di si foo mën a toog ci kaw suuf di nga xam ne amankat ah yar nañ ma jàngal nañ ma. macha allah yar nañ ma jàngal nañ ma ci lan ci comportement ci kàddu ci xam. en même temps sa jikko ndax rafet na defar nañ ko wala defaruñ ko parce que noonu la maam Seex Xaj Malik doon jàngale ay ndawam. Mhm. noonu la doon jàngale ay njabootam ba ñi mu yar ñëpp jàngal leen kenn ku nekk ci ñoom tey. Euh, ñii ay muxaddam lañu dëgg la waaye nekk nekk muxaddam tooguloo rek ci sa fauteuil ne nañ ñëw jox ma addiya ma lekk ma dund. déedéet daf leen a jàngaloo ne leen dem leen ngeen bay tey Serigne Mansour borom daara ji ku nekk xam na ko. Hmm. baykat la woon. cultivateur cultivateur la woon moom seen moom Cheikh Mahamadou Mansour. Serigne Babacar Sy Serigne Babacar gën fii ñuy wax jàmm Serigne Babacar Sy fii ñuy wax jàmm gën. Hmm. dafa daan bay ba teewul daf daan def commerce. Hmm. Serigne Abdoul Aziz Al Amine c'est un travailleur de l'administration voilà mais ci la nekkoon mhm. mais teewul loolu yëpp ni mais l'administration bi mu nekkoon sax c'est-à-dire que mooy que ni moom dafa nekkoon nit boo xam ni cest dire doomu ndar la woon Serigne Babacar la woon loolu la judd loolu la xam mais teewul bi nga demee ba nga xam ni Seydi Hadji Malick rajotaanu euh, am na lu mu ko bàyyeel dafa ne nag ah naa dugg nag ci tool yi ndax méccam taalibe dafa daan wax ni ñaar la méccam taalibe ñaar la mhm. ñu ni ko barak ban mu ni mbay ak commerce mhm. mbay ak commerce loolu mooy mécceem taalibe mbay ak jaay mbay ak jaay. bu bu bu neexee tool yi. bu tool yi bu bu bu tool yi jeexee bu tool yi jeexee bu nawet bi jeexee. Ah. nga dem ci nga dem ci commerce bi. bu nawet bi ñëwee encore. ngay bay di sàmm. loolu mooy loolu moo loolu la Maodo loolu la Maodo dundal ay njabootam. waaw tey li ma la expliqué nii tey Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum. Mm-hmm. Serigne Mansour si borom daara ji. Serigne Abdoulaye Sall Amin ba tey suñu baay bii fi nekk di sëriñ Serigne Babacar si. waajuram maam El Hadj Mansour ay toolam ma ngi fii cest à ñoom loolu la ñu xamoon maam Abdoul Aziz kazalika jagsaaw bi sëñ Hadj Malick demee sëñ Babacar si féetale ko fu mu nekk fa continuer di bay sëñ Babacar si am tool fu ñuy wax jàmm gën jàmm gën tey Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour borom daara ji moo fay bay sëñ Abdoul Aziz Al Amin tey boo demee Boulel lam fa dagg ci ay hectare di bay kenn xamul nu mu toll c'est-à-dire ñooñu loolu la ñu xam cest moom fas yéene wuñu di dundee li nga xam ne mooy ñàkku taalibe yi ndax Maodo bëgguma dundee ñàkku taalibe li ma bëgg rek mooy que ni man euh, na taalibe bi yëg ni dama ko jàngal ba diineem leer shari'am leer fiqam leer tarixa bi muy dund mu leer waaye mu xam ne ak encore une fois moom mooy kan ba fan lay war a teg tànkam ba bu seqee tànk bi xam ne tànk bi teg na ko ci diine waaye xam ni tànk bi tegu ko ci caaxaan. Euh, li ñu mën a jàng te mën koo yëkkatee jotaay bi jeexal ko. Mhm. ginnaaw bu ñu la sante bu baax gërëm la ci leeral yi nga ñu indil dafa am ñaari proposition comme ni ma koy waxee ci Sénégal. Mhm. dafa am école Seydi Hadj Malick Sy ak école Valière waaw taal ngol ngol mus nga mën nga ñëw nga jege si kaay kaay kaay kaay kaay kaay président des agresseurs du Sénégal <laughs> waaw moom mooy ñëw léegi alaaji taal ngol ngol ndax tout ce qui est histoire de Seydi Hadji ci Sy de Gaaya à Tivaouane là où il a vu le jour et là où il a rendu l'âme ci diggante boobu il y a une vie et un œuvre doit être enseignée mais dafa am ñaari jàngale yu fi am ñaari école mooy école valière mooy nasaraan bi bu vacances jotee dangay ngay dem plage mm-hmm. wala nga dem vacance sa kër maam wala nga dem football yi mm-hmm. c'est ça loolu mooy mais école Seydi Hadji Malick mm-hmm. bu vacance jotee bër da ngay dem jàngi da ngay dem bay da ngay dem ut loolu maanaam loolu ñu ngi lay former dès bas nga am métier ñu ngi lay sant bu baax Serigne Assane di la gërëm ci liggéey bi ak euh, kaddu yi defe naa waxtaan nañ ba noppi <laughs> te lépp mën nañ ko jël mu nekk ay cours de développement personnel pour chacun te ñu jën jëlee ko ci dund ak expérience su Seydi Hadji Malick Sy defe naa bu ñuy am jotaay yu mel ni uh-huh. léegi tey ñu ne il est connu de la nation parce xam nga loolu Serigne Cheikh moo ko bindoon <laughs> uh-huh. Serigne Cheikh moo bind benn livre wax ni Seydi Hadji Malick li ñu ko ni de la nation cest à mooy que ni mooy koo xam ni kenn xamu ko te eh, dëgg la kenn xamu ko nag cest à kenn xamu ko gi mooy Maodo dafa dafa dafa dafa dafa bokkoon ci li mu ñaan boromam nag euh, Pape Sidi dafa bokkoon ci li mu ñaan boromam dafa waxoon ne yàlla ngi lay ñaan bu bu ma bu kenn bu ma kenn xam ba ma jógee fi c'est-à-dire xam nga loolu xam nga loolu lu muy firndeel uh-huh. bu ma kenn xam ba ma jógee fi loolu lu muy firndeel mooy euh, bëgguma yëg sama bopp uh-huh. bëgguma yëg sama bopp Maodo bëggul yëg boppam uh-huh. cest à mooy que ni feeñal ni man maay diw wala man maa am wala man maa xam nangam loolu daf ko dàqoon c'est-à-dire moo tax euh, Serigne Cheikh waxee noonu mais Serigne Hadji Malick Sy yar na njaboot gi jàngal na leen te bi ci des mooy bu vacances jotee li nga wax mooy leen nit ñi xam mooy dem football yi dem defi sport dem defi nangam dem defi nangam mooy bër moom la ñuy wax bër mhm. c'est-à-dire daara ji nag boo bëree lañ lay wax rek mooy ca tool ya mhm. boo bëree yaa ngi ca tool ya jàng ak liggéey Maodo Maodo Maodo lii moo nekkoon slogan c'est-à-dire ñeenti jim yi ja ju ba jàng jub liggéey ja ju ba ja ju ba waaw ku nekk mën na cee jaaj nekk mën na ci waaw jaaj ju ja ja ju ba jàng débat bi ñu ngi ñu ko woowee fële <laughs> allah sant bu baax di la gërëm kontaan nañu yàlla yàlla motali lépp ñu changé ñu def essence de faño comme ni ko capitaine équipe bi di defee macha jege ñoo ngi nuyu ñoo ngi ñoo ngi nuyu sunu mbokku daara tabarakal moo war a ñëw léegi muy alxaaji Souleymane Ba Souleymane Ba eh, di sunu doomu bajjen macha allah bii ma fanaan ci macha allah ca stade ba ak Oustaz Mansour Diène eh. ànd koog eh, sunu sëriñ Thierno Madani Tall Thierno Seydou Nourou ñoo ngi koy ziyaar bu baax moom aji Souleymane di rafet lu xam-xamam di ko bégee bu baax muy muy nit bu baax nag eh. di nit bu sell di yaroo ci daara ji ñu yaroondoo ci daara ji waaye ñu xam ko bu baax di ko ñaanal yàlla yal na yàlla may ko wér yal na yàlla guddal fanam nuyu njaboot Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu anhu yëpp nag di leen ziyaara bu baax a baax di jiital xalifa bi dama am ndigal ci moom ndax Serigne Abdoul Aziz si euh, Serigne Babacar si Serigne Abdoul Aziz mhm, mooy mhm. Ndiol Fouta Ndiol Fouta macha allah dama ñëw ne ko maam dama bëgg a wax ci maam Maodo mu ne ma woowal euh, Souleymane donc bu ma dikkee man ci kër gi. Souleymane laay waxal mais comme démb dafa fanaan ci tànt ba. macha allah moo tax ñu bàyyi ko tey mu noppalu. mais defe naa ni waxtaan mu am solo. di ngeen ko am waaye du noppalu du noppalu de du ko bàyyi <laughs> mënul noppalu mënul noppalu ndax bu noppalu du baax. <laughs> mais sama copain nee na du ma bàyyi du wax ak man kaay toog. <laughs> nee na bu ma la kaay toog man nga mu am. film bi laay bëri. bismillah Alay Souleymane kon nag ñëwal ala Souleymane bisimilah mën nga toog mu ko jëgal naa la moom ginnaaw ginnaaw léeg-léeg nga joxe addiya loo def baax na <laughs> awa réew mi léegi boo yoree sa rek Souleymane bisimilah Souleymane Ba xam nga waaw toogal lii moom dina la. alaaj alaaj alaaj émission bi man dama koy seetaan émission individuelle